wéy leen di abonné ci suñu chaîne bi di Fafa TV ngir ngeen mën a jot suñuy vidéo yu bees yi auzu billahi rahim was-samaa'i dhaatil buruuj wal wa shaahidin wa mashhuud قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ الحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم mbokki asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu wallahi alquran rek a sakkan alquran rek a wóor lii lenn la ci meññeetu al imaam al cheikh ali ndaw rahimahullahu taala muy alquran ju mokk ju set ju sell cheikh omar ak ñi nga àndal alquran boobu lañ leen di ubbilee moom lañ leen di tàccandoo moom lañ leen di dalalee ci seen kër ci seen bërëb mën naa wax ne ñu ëpp ci daara ji teew nañ waxuma sax waaye même am di jàmm ñu ci biti am na sax ñoo xam ne teew nañ ndax mbir mi moo ni toll ñu ngi leen di tatagal di leen dalal wax dëgg di am mbégte bu baax a baax a baax dalal leen ci bérébu al cheikh al imam ali rahimahullahu taala di ñaan borom bi tabaraka wa taala lam doon wax ci xadiisul kursi ba ne xaqat mahabbati lil mutahaabbiina fiya wal mutajaalisiina fiya wal mutazaawiriina fiya sama mbëggeel war na ci ñi nga xam ne dañ bëggante te yàlla rekk a tax du daray àdduna dañuy toog te yàlla rekk a tax dañuy ziyaare wante te yàlla rekk a tax te sa tànk yi comme ni nga ko waxee tànku ziyaare la mhm. yaakaar naa ne su ma du benn du ñaar yoon yoo ñu ko wax mhm. alhamdulilahi rabbil alamin ah ñu ubbi mhm. euh, dal di la jox waaye di wane daal suñu mbégte ak suñu kontaante ci dalal la ci béréb bi te itam nag di ko sante yàlla ndax euh, yàgg nañuy mébét ñu toogati fii mhm. comme yàlla dogal na ko alhamdulilahi ak wér ak tal ak fekkee mhm. ngi koy sant yàlla bu baax a baax tabaraka wa taala mhm. di ñaan yàlla mi nga xam ne moo man lépp jotaay bi mu di ko gaaral googu fu mu tëdd xam naa ne bu boobaa ko dana sedd lool wa ma zalika ala bi aziz kontaan nañ trop daal kon si awaat tafaddal bismillah asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñu ngi am ñu ngi am mbégte lool teewaat ci bërëb bu tedd bi bërëb bu sell bi bërëb bi nga xam ne euh, kenn ci soppe yi kenn ci ñi nga xam ne ñooy ñi ñuy tëbb mooy ñi nga xam ne dañoo mat njiit moo ko sanc muy imaam Alioune Badara Ndao rahimahullah ñu ngi ñëw tey nag di mottali nisar bi nga xam ne amoon nañ ko depuis ba ñu nekkee ca kaso ba ñu yéene woon ne bërëb bii ñu nekk nekkin gi nga xam ne nekku bànneex lañ ko jàppee ndax ñun suñu culture te imaam sonn na si jàngale loolu suñu culture ñun jullit ni àdduna kaso la si ñun loolu yonent bi saasam jàngale donc nekk ci biir kaso ak nekk ci biti benn la si ñun Euh, ñu nekk foofu nag am mbégte ñaari yoon ndax ñu tooñ la fekk yaa ngi ci yoonu yàlla mbégte la waaye ñu tooñ la ndax tudd turu kenn ki nga xam ne sa soppe la da ko bëgg ñu teg tuuram ci tuuma sa kaw mbégte la ci kaw mbégte ndax moo nañu jàpp ne si coowal euh, nangam la wala coowal bërëb nangam la waaye kii dañ koo jàpp ci waxi imam ba Badara ndaw man lu ñu taqalee turam ak suñu jàpp boobu kese wallahi azim mbégte la ci man. Euh, imam nag chaque fois ma fàttali ne bokk na Sénégal ñi nga xamante ne ñu ngi doon dox pour dajale jullit ñi saa yu waxoon da ngay xam ni jullit mooy wax saa yu waxoon da ngay xam ni ku bëggal umma bi yiw ak njëriñ mooy wax saa yu wax tamit da ngay xam ni ku am ñeewant. ak yërmande ci askanam mooy wax waaye saa yu wax tamit da ngay xam ni ku engagé te xam li xew mooy wax donc euh, mbégte la tey wax dëgg yàlla ñëw teewu si jotaay bu tedd bi ndax euh, euh, xew-xewu njaboot gi ak xew-xewu daara gi li ci gën a bëri mu ngi ñu fekkoon ñu doon si biir suñu ginnaaw ñoom simmi nañu suñu ginnaaw lu bëri xew na fi yoon la woon ñu ñëw mottal yéene googu waaye ñëw ziaranteeg waa daara ji daara ji nga xamante ne nag mënuma ma ñàkk seede leen ginnaaw bi ñuy nekk ci biir kaso bi yëpp ay weer dafa fa ñeenti weer daara ji mësuñoo téye seen tànk si ñun ñu ngi doon dox di ñëw di ñu seet si di ñu ziar si biir kaso gi di nemmeeku ñu suñu ay njaboot dajale sax seen ay dërëm ak seen ay ñaar dërëm di ko yóbbul njaboot gi te teguñu leen ko woon wax dëgg yàlla euh, ñu am ngor ñu am kóllëre waaye bettuñu ndax ay meññeentu imaam Alioune Badara Ndao lañ moom moo saxal loolu si ñoom donc lii kàddu yi ngërmande la kàddu seede la waaye kàddu bànneex la ñi amaat jot ñëw toog fii di wax nag te di fàttali li taxoon ñu téye ñu bokk na si waxu imaam Alioune Badara Ndao bi xam ne nañ ko damay bëgg toujours di wax ne imaam monument la bi nga xam ne même bu jëmm ji fàddoo jëfam mënta dem jàngale na yaraate na fàttali na bàyyi na fi sujet yooyu nga xam ne maîtriser woon na ko lool di ko doxal ñun jàpp nañ ni euh, du réer incha allah rabbi jàpp nañ ni combat yi imam nekkoon yëpp tamit wax dëgg yàlla combat yooyu mënul nax saay ndax ay imam ba Badara ndaw yu bëri ñu gis si Sénégal ak si bitim réew ay nit yoo xam ne ñu ngi gis seen bopp ci moom di yëg seen bopp ci kàddoom ak ci jàngaleem te loolu wax dëgg yàlla te ay nit wala bàyyi leen mënul fay loolu incha allah rabbi ñu ngi jaalewaat waa Sénégal ak waa àdduna bi yëpp Imam Alioune Badara bi nga xam ne shahid la loolu ñu gëm te loolu ñuy seede fu ñu mën taxaw incha allah rabbi shahid la euh, fii sabilillah euh, si si yoonu borom bi ñu ngi koy jaale ñëpp di wax ñëpp ne euh, imaam dund na dundam dundam bi. mat na te matale li mu doon sonn yëpp ci dundam euh, coono googu ñun ñoo ko war a jëmmal bokk na suñu liggéey ñun dañoo am sas suñu sas mooy ñuy jottali jàngale imam ndax dafa mel ni imam de daa mel ni jëloon na avance ci lu bëree bëri lu war a xew ci réew mi te euh, ay vidéo am maa ngi koy xool barki démb rek di xool benn vidéo bi nga xam ne yàgg na def na lu ëpp quatre cinq ans waaye dafa mel ni comme tey jii lay ñun ñii lay waxal tey jii donc kon euh, suñu amee ku mel baax na ñeen volontaire di di di di di jukkiwaat jàngalem di xoolaat ay ay xutbaam di xoolaat ay darsam xool duñ ko beesalee yeesal koo pare wan ko waa Sénégal ndax Sénégal kat chaque jour ma fàttali ne réew réew la bi nga xam ne réew mu tumuranke la réew mi bëgg nañ ñu baax bëgg nañ ku baax dañoo gisul ñu baax ñu bëri rek ñu baax fi tumuranke euh, imaam nag bokk na si ñu baax ñooñu nga xam ne bu ñu sukkandikoo si seen jàngale ak seen ay waxtaan incha allah dañu gën a mën a gis yoon pour mën a dund l'islam bi nga xam ne mooy l'islam bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam andi woon ndax euh, réew mu ne Sénégal bii mooy suñu réew mu ñu gën a mën a waxtaanee l'islam dafa am ay jafe-jafe l'islam dafa mel lu am ay ci àdduna bi yëpp Sénégal gi ne dafa mel ni léegi ay islam a fi ne te moonte de l'islamu borom bi subhaanahu wa benn l'islam la waaye Sénégal dafa am benn islam bi nga xam ne islam folklorique la am beneen islam bi nga xam ne islam d'exploitation la maanaam islamu jëriñoo doomu aadama am beneen l'islam bu fi nekk bi nga xam ne l'islamu caaxaan la maam Sénégal la ñoo rax lu bëree bari ci lislaam bi nga xam ne dafay mel luy rendre flou jàngale yonent bi sallallahu alayhi wa sallam imaam Alioune nag ci kenn yooyu nga xam ne ñu ngi doon revendiquer islam authentique et pur bu yonent bi sallallahu alayhi andi woon ci ñooñ moom la bokk macha allah euh, yàlla nañu yàlla saxal ci yoon googu ndax woote yoon yomb na Euh, jëf benn jëf ci yoon bi yomb na waaye sax di si jëf ba fàdd loolu moo jafe yàlla ñu ko yàlla may incha allah rabbi di wax dëgg yàlla mbégte la euh, fekk fi waa daara ji yëpp ñu am ay yitte bàyyi seen ay yitte euh, teraanga gërul màgg loolu pour pourtant ñu ñàkk jot fi ne ay sëriñ fi nekk yoo xam ne yi jàngale alxuraan maanaam ñi gën ci xeet bi ñoo toog fii ndax ñi gën ci xeet bi mooy ñuy jàng alxuraan te di ko jàngale donc ñu bàyyi seen lépp njaboot geeg ñëpp bàyyi seen lépp di wax dëgg yàlla amuñ seen fay ci lii yàlla na yàlla fay leen yiw yàlla na yàlla boole ci hadisul qudsi bi euh, sëñ Ablaye fàttali léegi euh, ñi nga xamante ne euh, ñu ngi bëggante te yàlla rekk tax ñu ngi toogandoo te yàlla rek tax ñu ngi ziyaare wante te yàlla rek tax ñu ngi jokkalante seen i alal te yàlla rek tax lii man njort naa ni ñun ñii ñu ngi si biir xadis boobu macha allah yàlla bu yàlla tas yaakaar boobu. donc euh, jërë ngeen jëf loolu de xam naa ni moo nekkoon kàddu yi xam ne bëggoon naa ko nuyoo lay taayee ko macha allah waaw sëñ Fafa waaw sama journaliste Fafa bi xam ne namoon naa ko trop <laughs> macha allah. Euh, xam nañ ne démb la war nañu waaye mu amoon ngànd. lu bëri da ngay faral di wax ne. yow ñi la maanaam ñi la inspiré idéologie bi nga nekk nii. Mhm. imaam daf cee bokk. Mhm. ba pare idéologie boobu noonu dafa mel ni yow dégg dangaa dem ba maanaam bëgg bëgg dox ne Sénégal pour ñu dox si. Mhm. ci li may njëkkee mooy maanaam boo bëggoon a leeral nit ñi idéologie imaam Ndao mooy mooy lan. waaw jërëjëf euh, sëñ Fafa idéologie imaam ndaw si tënk ci gàttal ci firnde bu leer mooy islaam imaam ndaw jullit la bu gëm ni alxuraan mooy constitution gëm ni yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy modelam gëm ni yàlla subhaanahu wa taala mooy boromam kii mooy Amady Badara Lo ci tënk te lii kat wax dëgg yàlla lii mooy aqida bépp jullit bi nga xam ne xam na lu islam euh, imaam nag yemul kese si jëfandikoo ko jàpp ko di ko doxee daf ko waxee daf ci xalaat pour jëmmal ko euh, surtout ci wàllu wàllu vision économique et politique gu l'islam Euh, imaam dafa am xalaat ci wàllu économie ci li ñu ci lislaam pour mën a gën a ñoŋal pénc bi gën a defar pénc bi te loolu dama wax ne euh, ñun bokkan si ne xam ne moo ñu si inspiré euh, imam dañoo jàng lu bëri ci moom yàlla dafa ma dimbali ma def économie sama thèse bu njëkk bu ma def ci économie islamique laa ko def ci conceptualisation de l'économie islamique en matière de théorie ak pratique imam ay waxtaanam kenn du wax ni waxtaanu économie la kenn du wax ni waxtaanu euh, droit la kenn du wax ni waxtaanu politique la waaye kenn ku nekk ci fànn bi nga géejoo boo ko dégloo di nga xam ne yow lay waxal. te loolu alhamdulilah loolu dafay wane rek euh, euh, yaatoom maanaam yaatoom ci xam-xam ak feesam ci boole bi fànn yi donc idéologie boobu nag faafa lu neex a lu neex layal la. ñun jamono bii dañoo nekk ay ndaw yi nga xam jàpp naa ñu sommes dans la continuation de li imam Ndaw tëraloon buggoon ko doxal muy lan mu dañoo nekk ci ab réew réew mi kat nee nañ ñoom dañoo démocrate maanaam démocratie moo fi daw. démocratie tubaab yi ko créé ñoom nee nañu mooy régime politique bi nga xamante ne li ëpp si nit ñi dañu méngoo loolu moo war a àtte penc ma hmm. kon démocratie c'est la loi de la majorité. pourtant Fafa Sénégal majorité bay jullit lañu quatre vingt pour cent de musulmans lañu am Sénégal waaye kenn xalaatul te kenn ñemewul yëkkati kàddu lislaam l'islam dafa war a àtte penc bi dafa defar defar defar bi l'islam googu nag nga xam ne dem na ba ñu ragalloo ko jullit ñi ba juti boo nee islaam sax ñu tiit lislaam boobu ñu la jàpp ni suñ ko wanee ginnaaw duñu mën def dara lu am solo suñu dund gi ndax euh, borom bi subhaanahu wa taala bi ñu bind moo ñu gën a xam lu jub ak lu yeey si ñun. imaam nag waxtaanam yëpp di la woon. waxtaan yëpp leeral saay-saay yi fexe pour gàllankoor l'islam moo xam lobby international bi la moo xam franc-maçonnerie bi la moo xam homosexualité la mooy ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi jéem a xool ñuy fagaagal l'islam imam si ñu doon waxtaan di ko artu jullit lenn leen wan ni ñii ñooy seen ay noonu di woo juut ñu booloo dajaloo waaye leen wan ne am nañu modèle bi nga xam ne jël ñu koy jégaane mooy yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam imam ñett yi mooy pilier wu action am te jàpp naa ne ku xool te suivre imam xam ko day xam ne lii la doon dox subaak ngoon gu dégg ba cëkk macha allah. léegi xam comme ni nga wax foofu noonu lañ lay gën a laajat maanaam imaam waxam daanaka bëri na mooy comme li nga wax nit ki moom. Mhm. loo jàng nekk rek mën nga si gis sa bopp mais. Mhm. Ablaye daan na faral di wax ne imaam même bu doon jàngale euh, maanaam naxu sax. Mhm. dana si tuddaale laïcité. Mm-hmm. léegi laïcité xam nga Sénégal yi moom jàpp nañ ne xam nañ lislaam mm-hmm. mais laïcité boobu noonu si tënk mooy la ndax ñu bëri comprendre nuñ maanaam ne laïcité mm-hmm. ak lislaam du duñu benn comme ñun jàpp nañ ne xam nañ lislaam lan mooy laïcité mi contra contradise ak lislaam macha allah xam nga imam moom c'est vrai que imam mënul woon ñàkk wax laïcité ndax imam yàlla daf ko daf ko nattu li mu dundoon nag natt bu rëy rëy la mooy yeewu ci diggu ñu bëri ñuy nelaw xam li xew te ñu bëri xamuñu li nattu dëgg la. Mm-hmm. imaam dafa xamoon lan moo xew. dafa xamoon toolu xare bi fan la lan mooy jafe-jafe gi mu dem directement ci foofu di si teg di mm-hmm. moo tax mu doon déranger ñu bëree bëri nag. Euh, laïcité sëñ faafa suñ ko doon leeral rek laïcité dafa am fu mu jógee mu ngi jógee ca France France a jógee France moo créé laïcité maanaam kon laïcité dafa bokk ci histoire France ci évolution politique am la laïcité juddoo. lan moo ko jur France dafa nekk dëkk bi nga xam ne moom la doon wooyee la fille aînée de l'église maanaam dëkk la bi nga xam ne église moo ko tabax université yu njëkk ya centre hospitalier yi maanaam faj gi ak jàngale geeg lépp église moo ko doon def donc église dafa bokk si ñu ku tabax Europe maanaam loolu moom ku maanduwul sax war na ko mën a nangu su xamee histoire Europe France église tabax ko tabax ko ba mujj dem ba jamono bi nga xam ne évêques yeeg yi dañoo am doole gu dayoo. ñu commencé ànd ak buur di nappaaje askan wi lu mel noonu nag dafa mel ni mooy waaj xew senegal ndax Sénégal ay nitu diine ñoo àndandoog nguur di toroxal askan wi ndax ñooy nekk di jouir ak di noosee àllu senegal bi yëpp askan bi di subir di subir ba benn jamono ñu fippu ba ñu fippoo ne kat ñun kat gis nañu suy problème ñaar kese la c'est la bourgeoisie mooy buur yi. mooy buur rek duc yeeg marquis yi nga xam ne ñi ñoo ñoom ñooy ñoom ñooy le sang bleu maanaam ñoom ñoo gën ñeneen doomu adama yi ak l'église nga xam ne ñu ñëpp ay privilèges ñëpp dañoo richoon France gis cardinal bi nga xam ne presque milliardaire la presque milliardaire donc li gën a rafet ci ay yére lay sol li gën a rafet ci ay oto lay am jamono boobu calèche yi moo amoon maanaam li ñu doon am yëpp mooy li buur yi di am askan wi jug fipp euh, ay saay-saay euh, euh, jiite leen ñu dindi église bi ba pare dindaale buur lii moo di révolution France am révolution bi euh, ay intellectuel ak ay framason maçon ñoo àndandoon xalaat dañoo war dindi nguur ci France après dindiwaale doole église ci France ñii ñoo dem ba créer ce qu'on appelle la république république boobu France ñu ko créé en 1789 waaye république bi mu ngi dox ba tey doxul woon laïcité nag moo nekkoon outil bi ñu jëfandikoo pour mën a jox république bi gëddëm ndax dañoo gisoon ni. avant muy nekk république la France était benn monarchie bi nga xam ne une monarchie bu am ngëm-ngëm ngëm-ngëm bi moo nekkoon christianisme moo nekkoon diine France. ñoom ñu dem ba xeex christianisme gis ne dëkk bi amatul diine te doomu aadama yi diine mooy si ñoom lépp gis nañ ni nekk mu nekk xale ba ni muy mag diine bi moo ko jàngal. Mhm. diine dañ koy yóbbu ñoo koy jàngal école ñoo koy jàngal université bu feebaree diine bi moo koy faj ay sœur ak ay ay frère la maanaam ñu gis ni doole église ba tey jeexagul. ñu imaginer benn solution bi xam ne maanaam ban gëm-gëm la ñuy jox la république fii la ñu créé nag laïcité la laïcité fut la religion de la république maanaam laïcité tekkiwul état bu jaax dina jaaxaanaay euh, wax ni du ma faral benn benn benn benn diine. laïcité tekkiwul loolu bañ na ko ba France bi wax ni tey laïcité laïcité la gëm France état bi dafa dafa tëddul jaaxaanaay dafa far état état l' état est chrétien même bu dee du ko reconnaître foofu euh, église am na droit dóor ay clocham pour nit si ñëw julli waaye juut yu nekk France amuñu droit am haut-parleur noddu si kaw amuñu droit bi ba instant mi ak yow et France les sœurs yi nga xam ne ci église yi am nañ droit muuru sol seen ay tenue de muuraay am nañ si droit waaye jigéen yuy muuru jullit yi ñu leen andil mbooleem yi jafe-jafe depuis ay ati at France boobu ci moom euh, nit ki am na sañ-sañ sax taxaw ne moom lu ko neex lay dund. su ko neexee sax mu nekk góor jigéen bu ko neexee góor ak góor sëy fa bu leen neexee jigéen ak jigéen sëy fa CREAC sax léegi seen tappale gi yokku na ba egg fi ñuy wax multiplex mooy nit ki nga xam dafa man kat damaa bëgg ay ñu bëree bëri ñuy àndandoo di sëyandoo waaye France boobu nangul polygamie jullit yi nangul góor bu am ñaari jabar da nga gis ci France kon dafa dafa dafay xeex l'islam pourtant moom elle est laïque donc laïcité du question de ñàkk xeex diine laïcité franc-maçon yi ñoo ko créé jox ko république ne république bi foog mu am diineem foog mu am calendrier créé nañ sax calendrier ndax calendrier bii ñu am muy calendrier janvier ba décembre calendrier chrétien la calendrier bi pape Grégoire moo ko tëraloon donc c'est chrétien révolutionnaire yi ubboon nañu benn calendrier bi xam ne dindi dindi weer yi indi seen ay weeru bopp ay pluviose ak ay ventose ak dañoo créé sax benn calendrier pour mën a dindi église donc kon laïcité ñiy wax ni mbiri mbiri lu ndaw la dañoo xamulu lu laïcité ñun bokk na suñu problème bu gën a mag fii Sénégal la laïcité laïcité bii nii moom la ñuy xeexee l'islam laïcité mooy mooy yàlla sax amul droit am sañ-sañ li mooy réellement la laïcité euh, loi bi ñuy tudd nag laïcité bi nga xam la ñuy tudd chaque jour mooy la loi de 1905 loi bu siiw la bi nga xam ne ci biir loi boobu moo laïcité sax nekku ci moi bi li muy loi bi li muy wax dëgg-dëgg sax au fond fii Sénégal en tout cas doxaluñu ko mooy article 2 la république na salari ne rémunère ne subventionne aucun culte maanaam kon état bi dafa ne joxatuma xaalis diine yi du ma du ma dimbali diine du ma ko may xaalis du ma ko tabaxal dara kon laïcité France kon ci texte bi loolu lay tekki pourtant France état bi am na ay convention yoo am ak église Sénégal gii ñu wax ne laïcité moo fi ne état bi chaque gàmmu ak chaque màggal dafa yor xaalis bu bëri bu muy jox sëriñ yi la koy jox donc kon laïcité bii dafa correspondre ak suñu correspondre ak suñu jaar-jaar te méngul suñu diine man dama gëm ni képp ku xam dara ci lislaam war na xeex laïcité boobu dafa am benn kilifa gu mag euh, gu nekk fële ci Dakar bu ñuy wax Pape Cheikh Jimbira Sakho borom xam bu mag la euh, ku mën a gistu la bind na téere moom ci laïcité te téereem bi néew na téere bu ko gën a jub gën ko matale ci laïcité parce que daf ko xam lool man jàpp naa ni moom ak Imaam Ndaw ci ñu gën xam laïcité fii Sénégal lañu bokk. téere boobu nag mu ngi fii waaye waaye waaye taxu koo siw euh, ñu bëri xamuñu ko am na ñu bëri ñu xam ne ñu ngi liggéey ñoom pour bañ kooku ay waxam jëm kaw donc laïcité boobu euh, sëñ Fafa. imaam moo am moo am dëgg ci di ko bàyyi xel. ci lépp lu mu wax mu dugal ci laïcité pour nit yi xam ko ndax jullit dañoo nekk si danger fii ci dëkk bii te xamuñu danger bu ñu nekkee dañoo nekk ci ci ci ci ci problème. amul ku ëpp problème jultu Sénégal ndax nit la bi nga xam ne dañ ko wax ne ko sa diine baaxul ci yor penc mi sa diine amul solution pour defar penc mi sa diine daal jumaa ja la war a yem te bu ñu sàggee nañu fekk jumaa ji dañu wàññi leen seen baat ci jumaa ji donc jullit Sénégal nag jàpp naa ne ñu seen xol yaatu la ñu seen dënn yaatu la ndax nekk majorité ba pare mel ni yaay minorité ma loolu Sénégal gis laa ko gis donc ñun nag wax dëgg yàlla mm. bokk na suñu ay combat te loolu mooy wëyal liggéeyu imaam Alioune Badara ndaw mm. te man dama jàpp ñun ay jëmbatu imaam Alioune Badara Ndao la ñu mm. mooy combat yi mu nekkoon di ci yee Sénégalais yi mm-hmm. ñun ñuy actionné combat yi ndax combat bi léegi toltu sax léegi ci wax maanaam combat bi wax nañ ci ba sonn ay mag wax nañ ci bu yàgg mm-hmm. ñu ngi ciy wax boobu ba léegi mm-hmm. waaye ba tey ñu ngi ñuy soofantal ñu ngi ñuy wan ne ñu li ngeen wax amul solo mbéju kanam nag borom moo koy fayal boppam jamono bii dafa laaj julti jug taxaw Euh, daal di foqati lu ñu moom ndax dañ koo moom lislaam moo tabax réew mi l'islam bu fi ñëw état Sénégal tuddagul Sénégal existé gul woon fii jamaat yi dafa ci jamaatu Ibadou Rahman ak jamaa yu fi nekk sax ñoo mag état Sénégal état Sénégal 1958 dañ ko créé maanaam yàggul donc ñun nag dañoo am ay kuréel yoo xam ne ak seen organisation ak seen xam-xam kuréel yooyu ñu jël leen teg leen ci suuf leen yéen waru leen wax ci dëkk bi waru leen wax ci état bi te li jàpp naa ni euh, xeex lay boobu day nekk farata kon ci mbooleem jullit ti euh, dindi laïcité bi su ci constitution day nekk farata ndax faafa boo demee yenn dëkk tubaab yi nga xam ne ñoom seen seen ngëm-ngëm dañ ko gëm seen biir église seen biir constitution dañ fay wax waxu yàlla te nous sommes des peuples de croyants da ngay dëkk yu noor yi seen drapeau yi dafa amaate croix ñoom ñëpp ñoom Finlande dëkk yooyu yëpp dafa am croix seen drapeau euh, ñoom Portugal parce que dañoo am une tradition une racine chrétienne qu'ils revendiquent et loolu c'est très normal ni ñu ko amee ñoom nag baamaale fa ay parti démocrate chrétien yuy doxal dëkk yooyu noonu tam la ñu amee tamit ay racines islamiques dans ce pays am fi ay jàmbaar yu bëri def ay révolution balaa France ay révolution islamique fii Sénégal révolution Malick Sy euh, jàng nañu ko si taarix révolution des des des des des marabouts révolution Torodo bi moom Thierno Souleymane Baal yii yëpp ñu ko jàng ci taarixu Sénégal ay jullit jukk jël sa responsabilité danañ raxas penc bi def islaax islaax boobu nag faafa jàpp naa ne jamono bii la gën a yeey donc euh, laïcité boobu nag man jàpp naa ni mooy la racine du combat moom ak euh, baat boobu ndax phrase bi ci constitution Sénégal mooy article premier la république Sénégal est laïque démocratique et sociale point phrase bi dafa am kuréel bu ñuy wax les libres penseurs ñoo ko créé la libre pensée est laïque démocratique et sociale point. libre pensée boobu seen congrès wu 1904 lii may wax di c'est c'est c'est c'est perceptible ku dugg internet di ko fa gis ñun dañoo wax dañoo war a dàq yàlla ci kaw suuf nee na yàlla warul yor suuf bi di ko gérer diine warul nekk seen kaw ñoom maanaam nit dafa libre xelam dafa libre dafa koy boyal nu mu ko neexee maanaam ñii seen déclaration bi def seen premier article. moom lañ jël ñu dugg si constitution Sénégal suñu premier article dañoo soppi rek ba ñu waxee la libre pensée ñu wax la république du Sénégal waaye baat yi même la ordre bi même la te lii wax dëgg yàlla di saaga weesu si dëkk bi xam ne ay jullit lañu lii nag bu julti toogee defuñ dara dafay dëggal rek lu mag moom waxoon gaa ngi koy Sénégal kat quatre pour cent de musulmans moo fi nekk mu ne déet dañuy ne quinze pour cent de soi-disant musulmans ñoo fi ne ndax ñu fi ne ci ay jullit matuñu 10 pour cent. waaw ah, lii nag wax dëgg yàlla bu ñu xoolee tey nu Sénégal doxee xool nu ñu néewalee doole ak nu ñuy nappaajee faafa dafay mel ni comme wax dëgg yàlla mag moom li mu waxoon dëgg lay mel ni comme jullit Sénégal bëriwul ndax jullit mënul toog borom bi digal ko yoon ne ko fii laa bëgg nga dox nii laa bëgg nga doxee. mu jël ko teg ko ne moom nit tubaab bi doxee la bëgg doxee kii wax dëgg yàlla dafa wàcc yoonam buñ ko nangoo nag ñun ñëpp mooy ay complice buñ ko nanguwul nag dañoo war a jug taxaw nag jéem ko soppi ndax loolu ñu ne sa sam jàngaloon képp ci yéen ko gis li nga xam ne du yoon na ko jéem a soppi ci loxom maanaam na jëf pour soppi ko bu ko mënul soppi si jëfam nag na wax pour au moins mu soppeeku bu jëfee waxee soppeekuwul na ko mettit lu xam ne loolu mooy li gën a néew ci biir imaan ñun julti nag wax dëgg yàlla man jàpp nañ dañoo desee jëf ci dëkk bi dañoo yàgg loo jullit ni ku baax sax na toog si jumaa ji yem fa mbiru penc mi sa yoon nekku ci mbiru defar dëkk bi sa yoon nekku ci te loolu mooy politique maanaam fépp fu ñuy dogalee muy assemblée muy présidence muy fu mu mënti doon yow jut bi bu mu la intéressé ndax foofu yi fi tappale la yow jut bi yemal rek si daara ji ak jumaa ji nga bàyyi mbir bee ndax mbir mee mbiri saay-saay la julti ba ñu nangoo loolu leen jëkk naxee waaw lii naxe la ndax mbiru dogal doxal penc bi euh, ñi gën a jub gën a màndu te ëpp xam-xam ñoo ko war a doxee ñooñu seen mission la seen sas la ñoom ñooñu bu si seppee seen loxo rek wàcc nañ yoon bi donc kon faaf wax dëgg yàlla euh, comme baaw lay semoom jàpp naa ni tey loxo ko état Sénégal noonu la gën a dégg incha allah euh, imaam dem na de waaye ay ay imaam yu ndaw yu bëree ngi fi nga xam ne jàng nañ ci imaam root nañ ci imaam te dara mun leen noppiloo gëm naa nag ni munuñoo munuñoo fàggaagal ñëpp. ku ñu di fagaagalit wax ak jottali day tax combat combat du jeex du dee ndax gis nga mën nañu rey ay combattant mën nañu sàqal pexe ay combattant waaye combat bi dara mënu ko sàqal pexe incha allah rabbi macha allah jërëjëf macha allah euh, ci li nga wax ci laïcité bi léegi si li nga wax na maanaam ñun xam nañ ne mooy comme li nga fi tudd jàmbaar yi fi nekkoon wala ku mel ne Pape Djimbira bind maanaam nit day nekk fii bu muy dund comme imam nit ñi di ko seetaan di ko gis mais bu demee rek mhm. daanaka day mel ni day yóbbaale lam doon def mhm. euh, tey est-ce que pare ngeen comme surtout li nga wax ne mooy dafa bokk si la inspiré nga nekk borom xam-xam mhm. maanaam ñi bind xam-xamam li mu doon wax teg ko ba nga xamante ni tey nit ñi mën nañ ci jëfan jëriñoo kom tey mm-hmm. lu mel ni bu doon ñu ne dañuy jëm si wàllu économique bind na mm-hmm. plan développement local boo xam ne mm-hmm. day wax si wàllu nu ñu war a def pour développer dëkk bi laïcité li mu si doon wax eh, ni mu wax si ni ñu war a yare nit ñi c'est-à-dire ba nga xamante ni da ngay mën a nekk si école di jàngal xale yi naan leen lii la imaam ndaw wax waaw sëñ Fafa loolu volonté la dafa laaj volonté dëgg maanaam euh, réew ni ñu bëgg muy doxee noonu rek lay sax di doxee réew bu ñu wane ni diine ñoruñu nitu diine yi duñ fa am solo seen jàngal tamit du fa am solo te réew mii euh, suñu waxee dëgg rek te yàlla rek tax réew mii diine taxu koo ñor noonu ñu bëree bëri ci réew mi ci leen lañu nekk même buñ ko woowee diine waaye ci leen lañu ci nekk nit yi taxuñu leen bëgg noonu boroom xam-xam caaxaankat yi la gaa yi gën a bëgg ko boroom xam-xam yi nit yi taxu leen bëgg noonu tamit dëgg ak ñu dëggu nit yi bëgguñ dëgg naxante ak tappale la gaa yi gën a bëgg te ñetti yi problème da ci pénc ci réew soo amee ci réew rek réew dañ ci war a tiit euh, tey nag jàngale Imaam Ndao man gëw ma ni mën na mën na mën na disparaître du ma ko gëm lu tax may du ma ko gëm léegi rek yaa ngi gis ndaw bi nga xam ne mu ngi tari alxuraan bu set macha allah euh, ci jeexitu imaam yi la boq euh, ñun ñii ñun mag ñi déglu imaam jàng lu bëri ci imaam. am na lu bëri li nga xam ne mëntuñ ko noppee ba bu ñuy dee incha allah et niñ koy doxee noonu tam la ñeneen tamit di ko xoolee suñu tamit di ko doxee man jàpp naa ne dafay nekk silsila bi nga xam ne du dog du dogati incha allah ilaa yawmi diin man gëm naa ni volonté la laaj pour ñu réhabiliter imam waaye loolu mënul nekk si jamono bi ñu nekk nii ndax jamono bi ñu nekk nii faafa soo xoolee njiitu réew mi nga xam ne moo yor destiné wu Sénégal ci diir gu ñu nekk jamono ji ba imaam wuy jee boroom ndax jaale na ko ay mbokkam ndax jaale na ko ay taalibeem moonte de pourtant jiitu réew mi ba reine Elisabeth fële ci Angleterre génnee àdduna moom bind na jaale ko te reine Elisabeth dara Sénégal Sénégal sax xamuñu ko ñun yebul ci moom jiitu réew mi képp ku fàddu ci bitim réew te nekk ci euh, euh, borom alal yi wala borom tur yi wala borom lam yu diis yi wala saay-saay yi pourtant dina bind jaay leen kan moo gën a màgg Imam Alioune Badara ndaw fii ci réew mi kan kan laay laaj dafa koy laaj ñëpp waa Sénégal laa koy laaj kan dafa bokkoon ci élégance njiitu réew mi bàyyi ay soxlaam ñëw euh, dooleel ba pare màggal Imam Ndao ndax borom xam-xam la bi nga xam ne état joxu ko dërëmam moom muy def ci ndawu Sénégal yi nga xam ne loolu rôle état la woon donc ki nga xam ne bugg laa jaale ñëwul ziyaare sa waa daara ba dund mu ngi lay xeex lépp lu ñu mën def pour gàllankoor la sa ay projet def nañ ko kook gëwma na la jàngale lii moom mooy sama ngëm-ngëm maam gëwma na la jàngale gëwma dina fësal sa liggéey bi nga doon def waaye loolu ci xeex bi la bokk tax gis nga xeex léeg-léeg faafa dafay gën a màgg euh, ay nit Chante Diop jamonoom Senghor xeex na ko nu ne tere nañ sax ay téeréem ñu jaay ñu jaay ko si biir téeréem si biir dëkk bi tere nañ ko fi sax mu wax liggéeyam dañ ko tënkoon ba grade du professeur université Cheikh Anta Diop mujj ko am musu ko am assistant la la jóge la jógee université ñu ujatul ko benn bureau bu ndaw fële ci IFAN sànni ko foofu pour bañ kenn xam ko xam nga fan la mujjee Cheikh Anta dafa génn àdduna ay ati ati at ay xale juddu fekkee ñu Cheikh Anta xale yooyu ñooy toog chaque at jamono bi dakaar ñu jóge di dox ba caytu ci bàmmeelam pour dem ziyaare ko te xale yooyu gisu Cheikh Anta Diop maanaam dëgg kenn mënu koo muur abadan mënul nekk te imam Alioune Badara ndaw ci dëgg la taxawoon dëgg boobu nag tey jii day mel ni lu lu lu ñu gisul waaye yàlla moo koy fayal boppam ni mu ko neexee te loolu incha allah ñun ñi duñ ci am suñu masuuliya la ñun ñëpp ñuy wëyal di di fësal jàngaleem di wane moom mooy kan ak la la doon sonnee chaque jour donc loolu kon euh, jàpp naa ne sas la sas bi nga xam ne keroog bés pénc bu ñu taxawee ci kanamam waruñoo rus euh, ni ñu ko jàppee sas jàpp naa ni neen ñoo la topp si ñun dañu koy jàppee sas te lii moo andi lislaam xam nga sooy xool ci lislaam ci moom yitte pour fësal fikra doomu adama fësal euh, jàngale ak euh, ak xalaatu doomu aadama sooy xool mazahib yi ci waa ahlu sunna wal jamaa mazahib yi duñu duñu duñu ñent rek bëri woon na ay ay ma yoo xam ne amoon nañu ay masab ñoom imam Ibn Hazm amoon na masab ñoom Jafar Sadiq imaam sixième imam amoon na mazhab mazahib yi bëri woon na trop waaye mazhab yi survivre ay millénaire ba ñëw si ñun jamono bi ñun néew lañu li ko def mooy ñi ca nekkoon dañoo am yitte dañoo am yitte ba pare am ay borom xam-xam yu ko téye ndax borom xam-xam mooy wóyal xalaat donc loolu imaam jàpp naa ne ñàkk ko te incha allah euh, li mu doon xeex yëpp bés na ñëw mu nekk fi mu nekk ci wetu borom bi. di xool euh, waa Sénégal di kontaan. ndax ñu gëm nañ ni ñëpp ñi nga xam ne dañ leen a rey ci yoonu yàlla deewuñu alxuraan dañu jàngal ñu balhum mu ne ahyaun inda rabbihim yurzaqun donc imaam wax dëgg yàlla ñun gëmuñ dafa dee. Mm-hmm. te mu ngi ñuy xool e sasam mu ngi suñu kaw. yàlla na yàlla may ñu mën a mottali yéene yu ñu am ci moom yàlla yàlla dëgëral ñu ba tax li mu mbébatoon yëpp bëgg ko ñu mën ko sottil incha allah bi lii daal mooy ñaan bi nga xam ne jàpp naa ni euh, dañ ko war a ñaan ba pare taxaw dox pour dëggal ñaan bi incha allah rabbi macha allah jërëjëf xam naa ne duñ mën a guddal trop trop waaye mm-hmm. Euh, pour continuer waxtaan bi rek mooy yéene boobu imaam amoon mooy taxawal lislaam mhm. yow da nga créer parti boo xam ne mooy ci lislaam la te li ñu xam daanaka mooy li njëkk Sénégal mhm. te ñun ko ne xam ne ne daanaka tey bëri na ay jullit yoo xam sax boo leen waxoon ne tey kaay ñu àttewoo ci lislaam mhm. da nga am ak ñoom problème léegi ma lay laaj yow maanaam loolu nga créer noonu ban maanaam noo ko àpp cest à ndax da ngaa a bokk léegi si élection pour yóbbu nañ ci ci ne parti islamique wala wala maanaam daal lan mooy sa kii programme pour loola. waaw jërëjëf Fafa ah li laaj am na solo trop euh, d'abord damay njëkk wax ni nekkul maa ko créé euh, ñu bëree àndandoo toog ñu créer ndoo ko bañ koy créé ñoom ñu jël décision jiital ma ci te sàkkuwuma ko woon wax dëgg yàlla bugguma ko woon jiite sax waaye ñoom jiital lañ ma ci dul sama coobare ma nangu ko tamit xam ne sas la. parti boobu nag ñun dañoo gëm li nga xam ne moom lay wax sànq léegi ne imam loolu la doon doxee dañoo gëm ñun alxuraan mooy suñu constitution ñun. yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy suñu modèle mooy suñu référence yàlla subhaanahu wa taala képp kese dong moo ñu moom keneen moomuñu donc lii nag wax dëgg yàlla ci paysage bi ñu ne lu tumuraanke lay nuru dañ ci boole nag am ci njàngalewu lislaam muy ñeenti mbir. bi si njëkk ñun amuñu obligation résultat obligation d'action kese la yàlla jox. Mhm. Euh, résultat ak ndam yàllaa ko moom. yàlla moo koy sottil nu mu ko neexee ak fi mu ko neexee duñ suñu wareef rek mooy ñu jëf waxal borom bi ba pare xeex pour li yàlla bëgg mën a am ci penc bi muy benn. Mhm. ñun ñun ñaar euh, gëmuñu nguur li ñuy nguur gëmuñu ko. ñoo jàpp nguur perception tubaab bi la ci wàllu ci wàllu politique ñun xidma la ñu gëm dañoo gëm dañoo war a servir pour mën a bokk ci sangu doomu adama yi seydul qawmi yonent sax nee na xadimuhum donc ñun nekkuñu ci optiku nguur muy ñaar euh, ñetteel ba euh, sëñ faafa ñun dañoo gëm ne parti bi dina mën a bokk ci ci débat public bi ndax dafa am fenn fi xam su fa tolloo le débat public du waaraate wala ay jumaa moo koy impacté mais c'est des acteurs politiques yoo xam ne yu am sañ-sañ ci biir sphère politique bi ci ay ci ay échéance politique si soog a déglu ku nekk lan la andi te foofu lañu jàpp dañu fa war a imposer le débat de ndax aujourd'hui la gouvernance maanaam jiite adduna bi ci nu islaam andee loolu dama jàpp ne wareef la fafa ñetti mbir tax na loolu nekk wareef bi si njëkk mooy ndax ñun jullit ñi nangu nañ ni yàlla am na lum ñu bàyyee ñu si alxuraan ñu war a dundee. lii mhm. mooy première question yi xam ne ko war laaj jullit yi ndax islaam am na modèle politique. économique ak social bu mu indaale ci alxuraan pour jullit yi ko jëfandikoo. question bu ñu ko laajee juge yëpp dañuy d'accord ni naam am na. yàlla jox nañu modèle politique économique juridique judiciaire ndax Yonent bi sallallahu alayhi wasallam taxawee woon na ko Médine moom. ñaareel ba mooy ñaareel laaj bi mooy ndax modèle yi fi ne ci àdduna bi te tubaab bi andi ko. Euh, moom ak modèle l'islam ban modèle mooy bi gën question bi tam bu ñu ko laajee jullit tamit jullit yëpp dañu laaj dañu tontu tamit nañu ah. li yàlla wax dara munu ko féete kaw ñetteel ba mooy ndax ñun yàlla daf ñu toppaloo li mu wax moom la ñu toppaloo ay nit lii tamit soxlaay julti tamit ñun ñëpp dañu àndandoo d'accord ne yàlla daf ñu toppaloo moom lañu toppaloo ak yonentam bi donc kon faafa raisonnement trilogique bi ci wàllu laaj rek tax na ne kon julti yi moom ala kulli xaal li ñu war a doxal ñun kon xam nañ ko léegi nag euh, parti boobu faafa dina am lu bëri li nga nit yi dañ ko xaw ñàkk comprendre bi si jiitu mooy mooy xalaatu parti bi idéologie bi ndax ku dégg islaam jamono bi ci ñu dul ay jullit dañuy tiit julti si woom mooy li wax ni manque de formation damañ ba ragal suñ déggee islaam ndax dafa am saay-saay bu jiit si ñoom di liggéey ati at leen gëmloo di islam dafa barbaar islaam baaxul islaam day rey ay nit islaam dafay suufeel jigéen islam dafay nangam dafay nangam te loolu yëpp wax dëgg yàlla ute naag jàngale yoon ci yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam ute naag kon dañoo am défi défi boobu mooy leeralaat l'islam surtout l'islam politique jéem a dundalaat sunna yonent bi sallallahu alayhi wasallam loolu tamit si sunna la bokk. dafa am kilifa gu mag bindoon. ne ne aalama nii al yawma indiraasi sunnati maahid dalal qaayid mooy tey am naa lu ma métti méttitul naa trop. ci rap rap bi nga xam ne sunnent bi sax mu ngi am rap rap googu moom mi nga xam ne moom mooy kii effacer les te mooy suñu njiit ñun donc aujourd'hui yonent bi amoon na sunna économique loolu ñun ñi nga xam ne ñu ngi gëstu bu baax ci wàllu iqtisaadi al islamiya xam nañ ko bu baax yonent bi am na sunna ci wàllu politique loolu ñuy wax ci islaamu siyaasi xam nañ ci dara yonent bi am na ay sunan yoo xam ne yëpp yu laal vie sociale environnementale maanaam lépp luy solution àdduna bi si jafe-jafe yu ñu am wax dëgg yàlla yonent bi saay sama am na ci xalaat te joxe na ko euh, ren bi waroon naa participer ci benn jotaay bu mag bu amoon fële ci Bulgarie fu ñuy wax Sofia euh, li ma fa waroon yóbbu moo nekkoon waxtaanee mbirum monnaie complémentaire ma bindoon benn papier tuddee ko euh, une décennie de menaces FEBSTEX laa tuddee woon FEBSTEX ma jàpp ne am na ay menaces yoo xam ne menaces yëpp. mu ngi ñuy yoot ci décennie bi ñu nekk fii balaa deux vingt neuf et que solution yi dëgg-dëgg mooy delluwaat si jàngale incha allah Muhammad sallallahu alayhi wa pour mën ko saafara menaces yooyu ma ma lim ma listé woon euh, acronyme laa joxe si FEPTEX yi parce que FEPS yi F bi dafa nekkoon financière dañu am ay jafe-jafe si wàllu finance aduna bi te loolu ren bii waa Sénégal lañ ci xam dara. ndax ñu bëree ba lañu am jafe-jafe lié à la finance mondiale ndax durant la crise dañoo éjecté woon xaalis bu bëree bëri bëri bi nga xam ne tegul woon ci dara et les chaines de valeur de production yëpp lañ ko daggoon ndax ndax mbiru confinement yi donc kon nañu dund jafe-jafe yoo xam ne elles seront d'ordre financier eux bi elles seront écologique ndax on a des problèmes écologiques yoo xam ne ci dabaatal relance bi nga xam ne adduna bi ñu ngi koy commencé relancer ak relocalisation yi dëkk yu am doole yi bëgg def ci dëkku dëkk yu néew yi. bee bi comme budgétaire ndax état yi dañoo mujj xoox état yi sànni nañu xaalis yu bëri baal nañu ay impôts subventionné lu bëree bëri yoo xam ne état yi mujj na ñàkk. loolu Sénégal gii soo xoolee discours yi temps yi si janvier bi nga gis état bi commencé bëgg dina loo xam seen subvention yi. ne dinaa bàyyi gasoil bi na yokk. courant bi tam dina yokk lii lañ defagum waaye fii février mars yeneen dina yokkaat incha allah ndax c'est un problème bi nga xam ne problème bu sérieux la bu ñu bëggul régler ni ko war a régler. Euh, beneen bee bi di biologique nous avons des menaces biologiques du fait de, de te lii bu yàgg ba sax y avait eu des guerres biologiques xam dëkk ci wàllu biologie. loolu instant yi dëkk yu yëpp xam nañ ko te ñu ngi koy bàyyi xel ñun Sénégal yi ñoo ko bàyyigul xel es euh, bi ma booleel ko comme sanitaire nous avons des crises sanitaires yoo xam ne Covid bi pareegul pareegul ba tey ci àdduna bi ndax soo xoolee jamono bii nu muy doxee Chine ni ko ni ko dàbbalee ak aujourd'hui nu gars yi di wax dañu dàbbali yeneen corona yi xam ne dina am corona yu bëri yu teglantoo encore bu teg corona bii ndax bii du premier corona bi amoon na sars cov mu dem ñu andi la MERS bi xam ne moo feeñoon 2015 fële ci Arabie Saoudite doon laal meewu gëléem mi ñu andi léegi Covid 19 mooy SARS-CoV-2. yeneen corona nañ ñëw incha allah te dëkk yu sérieux yëpp ñu ngi commencé am benn veille stratégique par rapport a ces à ces euh, crises euh, sanitaires euh, T bi moo nekkoon technologique E bi nekk écologique S bi nekk sécuritaire donc man crise yi laa boole woon jàpp ne mënta ñàkk ci àdduna bi crise yi nag man ci lislaam laa dellu pour gis solution nagam man di penseur musulman war a xalaat ci biir ay tubaab yoo xam ne ñoom ñëpp presque ñu fa nekk jiit ñu néew lañu may may may énoncer ay problématiques ak ay crises yoo xam ne en vue te yooyu c'est des crises yoo xam ne mënul ñàkk ak nan la islam solutionné crise yooyu kon faafa man gëw ma ni Sénégal bi nga xam ne ay juut kese fi ne. wala boog juut yaa fi ëpp. mënuñoo ñàkk sukkandiku la delluwaat ci jàngale leen ci Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam bi nga xam ne moom mooy suñu référence mooy suñu dalil moom la yàlla sa yàlla subhanahu wa taala wax ne moom am nañ ci moom un modèle accompli. un modèle parfait pour ñëpp ñi nga xam ne bëgg nañ saadatu daaree ni moom la ñuy wër incha allah dañoo bëgg am jàmm ak texe fi ñu ne ak jàmm ak texe fi ñu jëm lii tax na kon mënuñu dumooyu jàngale yoon ci Muhammad sallallahu alayhi wa sallam chaque fois ma fàttali ne tubaab bu tudd Michael chien la de du sax julit tubaab la américain la téereem bi ba ko classé andi ay critères andi douze à seize critères yoo xam ne moom la sukkandiku pour xool kan mooy le plus grand homme de l'humanité première place am la teg yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam yonent Yàlla Muhammad mooy l'homme qui le plus marqué le monde ci deux mille ans ñu weesu Jésus yonentam ñoom Bouddha yëpp ñu ngi topp ci ginnaaw après pour dire que rek dafa dafa objectif dans dans dans dans dans nagam chrétien moo am critères yu objectif xam ne yonent Yàlla Muhammad moo gën a marqué adduna bi. ci solution yu mu andi ci nu mu soppee adduna ci nu mu changé ci temps bu ndaw benn gox bi nga xam ne gox bu sauvage la woon bu xeebu bu doyadi mu soppi leen civiliser leen ci li mu andee ci boromam. nagam kooku moo reconnaître loolu en ce moment ñun ñi nga xam ne ay juit lañ yi wax ashhadu an laa ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadu rasulullah donc kon solution moom ñu werante wuñu ko ñu ngi yëngu ci wàllu économique finance gis nañ tubaab bi jamono bii ni ñu récupérer finance islamique te lenn kese la ci biir jàngale yoon Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam donc kon aujourd'hui débat bi euh, man jàpp naa ni euh, RV loolu lay gën a bëgg a euh, lu mu bëgg a mooy le débat autour de la gouvernance islamique ndax jullit yi wala ñoo dund ci penc mi islam ñàkk see am baat ak kaddu ndax war nañoo laaj lislaam si ñuy doxalee dëkk bi li wax dëgg yàlla ay question la nga xam ne faaw sénégalais yi toog waxtaan ci faaw tamit ñu am ci solution euh, dama koy sànnee xeer euh, semaine bële passé fekk ma dem tribunal fekkee benn audience àtte ma fekk juge bi mu ngi toog euh, procureur bi toog ci si angle ba na le procureur mu ngi téye code code pénal bi ak code procédure pénale bi ñaari mu teg ko ubbi ko ci kanamam teg ay kayit yu bëree bëri bëri di wax di ubbi di xool article yi mokkalul article yi ma fàttaliku li imaam Ali wax Ali Badara Ndaw waxoon attekat dëgg balaa atte bi di wér loi yi ñu war a attee ñëpp a ko war a mokkal soxlaw ñu xool téere wala livre pour mën a attee kii atte ki ñuy atte nga xam fan lañ ma attee te ñëpp a koy mokkalandoo atte gënul maandu lii nag macha allah te loolu incha allah sëñ Fafa man jàpp naa ne tooñ la bu ñu tooñ ñun juldu Sénégal yi te tooñ boobu foog ñu réglé dañuy tënk ñëpp ndax dañoo jàpp ni islam foo ko tuddee rek gars ne waaye am na fi ay chrétiens si dëkk bi naam am na fi ay chrétiens chrétiens yi ñun islam généreux chrétiens yi yonent bi saa sam dund naa chrétiens yi dund si jàmm ak salaam ñun chrétiens yi amuñu jafe-jafe ak ñoom ndax ci waa ahlu kitaab la ñu dañ leen respecté dañ leen a fonk seen yonent ñooñu ko gën a bëgg ñun ñooñu ko gën a fonk seen yaay yonent ñu ko gën a fonk booy xool ñu tudd Mariama Sénégal gii si jullit ñi ñoo ëpp ñu chrétien tuddee mari doom donc ñu tuddee instant ñun fii am nañ ay instant ñu tuddee suñu ay doom doo gis chrétien tuddee doomu Muhammad donc ñun wax dëgg yàlla dañoo xajoo ñëpp islam diine bu yaatu la diine bi xamee amul benn problème ak ak ñu mu dëkkandool waaye nag islam tamit dafay laaj tam li moom islam dafa am ay àq ak ay yelleef aujourd'hui si yoon rek nga xam ne balaa may dugg ci économie yoon rek ci yoon bu ñu demee tribunal bi moom dañ koo léser bi moom amul benn problème ndax dañ ko jox tribunal bi xam ne laïque la bu koy atte bu dee gërëm loon na ko te méngoo nag diineem wax dëgg yàlla moom kon kenn tooñu ko waaye ñun dañoo tooñ ñoo tere ñu atte woo li ñu gëm ñun te loolu tooñ gënu koo màgg loolu nag pour dindi ko soxla nañ suñu justice ñu réformer ko am au moins deux chambres ci biir justice bi am une chambre islamique ak une chambre laïque maanaam il faut moom chambre bi nga xam ne mooy atte jullit yi méngoo ak sukkandiku si jàngale jullit kenn ki xam ne du jullit gëm dañ ko war a àtte bokk si dëkk bi kooku mënuñ ko àtte dans la chambre laïque ndax diine dëkk bi ñoo ko bokk ñoo ko moncé bokk waaye nag aujourd'hui wax dëgg yàlla discrimination la ñu am faafa euh, jurit ñi am nañu at chrétiens yi am nañu année ñu suy at ñun jullit ñi zul xijja lay jeex muharram lay tàmbale état Sénégal amul benn budget amul benn xalaat mm-hmm. amul cadeau amul ay hadiya sax yu mu waajal pour si doomu jullit ñi ci atu jullit bu jeexee état Sénégal jàppul atu jullit at bu sérieux mm-hmm. état Sénégal benn at lay célébrer mm-hmm. mooy mooy atu chrétien yi mooy décembre décembre état Sénégal am na budget day génne ay lampe leeral day defar ay noos dafay joxe ay cadeau loolu lay wan ni li Sidy Lamine doon wax naan l' état judéo chrétien l' état Sénégal est un état judéo chrétien loolu mooy la lii nag Euh, du discrimination du dara mais euh, jël li ñu moom la ndax dañoo nekk si dëkk bi tabax dëkk bi am sañ-sañu nag defar dëkk bi islam depuis neuvième siècle mu ngi Sénégal kenn mus ko dégg si fitna saa yu xeexee dafa riposté saa yu xeexee dañ ko tooñ donc aujourd'hui Fafa nag wax dëgg yàlla débat bii moom gëw ma ne jàpp kaso tëj dina ko réglé gëw ma ne nappaate dina ko regle gëw ma ne xuuxalante tamit dina ko réglé débat bi kenn mun ñu koo tere posé. lislaam la gëm te l'islam andi na solution waxuma pour Sénégal waaye pour adduna bi yëpp te ñun Sénégal bu ñu doxalee dëgg-dëgg li ñu leen di sasam joxoon mën na am ñu inspiré dëkk yi xam ne ñoo ñu jege ndax dëkk yëpp ñoo bokk situation Mali Guinée Niger dëkk yëpp julti ils sont plus de quatre vingt pour cent dans ces pays et que julti dañ leen nax dañ leen a tooñ dañ leen a wor te ñetti wax dëgg yàlla baax na jamono bii ñu fàgg ñu fàgg gàgganti ko macha allah. donc lii daal mooy li xam ne mën naa ko tënk. ci euh, wàllu l'islam politique. xam ne daal du question de terrorisme. du sol ay bomb. du rey ay nit. du tuutil ay ay kilifa diine wala tuutil ay mbooloo. li ñu boole moo ëpp ay tarixa kër gi ñun la ñuy wax waxuñu waxu néeg yu nekk ci biir kër gi ñun kër gi lañ nekk di waxtaanee kër gi moo am solo. te kër googu nag daf ñu booy dajale ñu ku nekk li nekk sa biir néeg moo xam lal bu rafet la kii sama lal moo dàq sama chaise bi moo gën a rafet wala sama mat laa gën a nooy loolu yow ak sa néeg la ñun kër gi la ñu a réglé pare ku nekk après dugg sa biir néeg def la neex waaye kër gi moom lislaam la chariatul euh, muhammad yi la nga xam ne benn la amul ñaar ñun ñëpp ñoo commencé bokk wala ñu liggéey nag ci ñu mën a amee jàmm Sénégal mën a defaree Sénégal ba nga xam ne ñun ñii jullit ñi duñu loru ci zahir ak ci baatin donc lii rek mooy mooy yitte beeg yéene bi ndeysaan macha allah. waaw euh, jërëjëf euh, sëñ Fafa li wax lu am solo la xam nga damay wax rek li li imam waxoon fa su ma jëmul sëñ Ablaye bu mu demee seeti ko fële ca ca prison Ndar euh, boole amoon moom jaaxle ci lu ñu jàpp imam tëj ko kaso. imaam dalal xelam wan ko ne ko tëj kaso bi lu nooy la man li ma doon xaar tëj kaso waaye maa xaar toog sama jumaa di xutba ñu fekk ma fa tiire ma rey ma donk daawa bii ñu ne parce que li ñu nekk ñun jihaat laa ko jàppee man jihaat la bi ñu nekkee nii dañ ci joxe suñu ay bakkan ndax yàlla dafa jaayanteeg jullit ci alxuraan dañuy xamee ñoo jaay yàlla seeni bakkan ak seeni alal donc kon ñun wax dëgg yàlla ci sillage yu aay boobu la ci dugg lii dañ ko peese xool ko bu baax xayma ko xool ndax àttan nañ ko wala attanuñu ko xam ni dee mën na si judd ndax l'état dafa ragal trop ku tudd baatu islam imaam ndaw moom kese du woon kilifa diine Sénégal mm-hmm. waaye kilifa diine yu bari état mu ngi leen di woo mu ngi am rapport rafet ak ñoom. ndax waxuñu lu ko gêné état mu ngi leen di may ay oto leen may ay xaalis leen jox passeport diplomatique bu ñu xeelee sa état bi fëkk enveloppe ñëw ne maa leen may nangam moo xam dafa ni compal dafa ni jox lu duuf imaam yi ma tudd nii yëpp moom amu ci woon ndax dafa laal là où le problème se situe mooy la structure l'état du Sénégal bi xame lii dafa woor jullit yi ji nga nag bii nag kon ñun faafa. tëj kaso lañ ci mooy li gën a ndaw liñ ci mën a dal ñu ngi ciy xaar lépp waaye luñ ci mënti dalit dañoo am yaqin ne ñu ngi ci yoonu yàlla te ay shahid la ñu nekk. combat bii dafa neex a porté xam lu tax mu neex a doxal ndax combat bi da ciy am ndam te commencé goo. combat bi da nga ciy am ndimbal te tàmbalee goo ndax yàlla dafa diggee ndimbal innahum lahumul la wax. ba pare ne inna jundana lahumul xaalibuun dañoo am ndam te tàmbalee guñu donc kon combat bi ku ci nekk. tiit moom mënu koo dal wax dëgg yàlla ndax kuy tiit waxul yàlla euh, kuy tiit liggéeyul borom bi donc combat bi am nañ ci ndam ba pare te peese nañ ko incha allah te gëm nañ ni yàlla moo ciy tegal pom loxoom ndax yàlla euh, pare na yàgg na. aujourd'hui jullitu Sénégal yi li ñuy xalaat ñun di ko wax di ko dox ay junne junne juut ñu ngi si biir dëkk bi kenn ku nekk mu ngi toogoon jàpp ñàmburam musul jug parce que dafa jàpp ne il n'a jamais été concerné woon waaye ñooñu ñëpp bu ñu dajaloo. lépp lu ñu bëgg ci réew mi incha allah dina am. te mhm. islaam dina am place am ci Sénégal. te loolu nag incha allah yàlla jamono bu ne mooy xool circonstance ak contexte muy set dajale ay nitam yi xamee waajal nañ ba pare. Mhm. ñu àndandoo exécuter ko son programme wala son plan te plan boobu yàlla bind na ko balaa ñuy judd ñun. Mhm. amaa nag ban démarche fas doxal dama gëm ne jamono bu ne islaam dafay xeex. islaam jamono bu ne rek yàlla daf koy jox ay noon jamono yonent yi ba tey islam am na ay noon ay saay-saay xam ne ñu ngi jéem a xool nu ñu nu ñu nu ñu suruxalee diine waaye jamono bu ne tamit islam dafay am ay gànnaay yu muy xeex ak noon noonu yooyu islam ay gànnaayam dafay yokk par rapport ak noon yi ay gànnaay yu ñu andi aujourd'hui la communication gànnaay la képp kuy waxal l'islam wala di ko xeexal munoo ignorer communication mënoo ignorer génn dem dugg seeti doomu aadama yi te am na ñu bëri ñee xam ne am nañu ay préjugés loolu am na ay xalaat yoo xam ne ñàkk ñëw si ñoom moo tax mënuñu na ñu nangu li ngay wax. ñun nag fas yéene nañu incha allah peut fii ba avril lañu bëgg a bàyyi avril ñu soog a tàmbali tournée au niveau Sénégal dem gox ak gox yëpp incha allah seet leen ziare leen. nemmeeku leen ba pare exposé li nga xam lu ñu bëgg a def pour bañ am benn benn benn wutut benn woroo ci biir lu ñuy wax ak li ñu bëgg a def euh, lii nag ginnaaw loolu nag échéance électorale yi moom un parti daf si war a dem. parti bu organisé wu dafa am devoir dem ci élection yi bokk ci donc lépp luy élection incha allah Sénégal tamit nañ fas yéene ci bokk incha allah ndax gëm nañ ni jullit ñi tant que tooguñu fa ñuy dogalee. lay saafara lay lay ay tawatu lislaam du saafara wu. lii moom lañ ko gëm te jamono bii ñu ëpp ñu dem ci toogukaay yooyu wax dëgg yàlla demal ñu fa lislaam waxuñu fa wax lislaam lépp lu lislaam di xeex suñ ko fa yóbbee ñoo koy gàllankoor. li ko mujjee wane rek firnde bi. mooy loi wu homosexualité bi nga xam ne sonnoon nañ si ak ñoom imam imam sonn na ci sonn bu ne fan la mujjee dañ ko doyadil sànni ko ndax ay jullit ñoo fa nekkul woon rek ñi fa nekk xalaatuñu lii yàlla bañ ak lii ak li yàlla bëgg ñuy xalaat seen ay partenaires si dëkk tubaab yi li ñu bañ ak li ñu bëgg ñun jot suñ ko voté woon ñoom ñeen leen mayti xaalis te wax dëgg yàlla ñun am am ngërmande borom bi am ngërmande borom bi ak yërmandem moo ñu ëppal alal te bu ñu ragaloon yàlla xàqan ci dëkk bi yàlla ubbi teraangaam yi ci kaw asamaan ci biir suuf yàlla moo gaan ci alxuraan taqwa rek mooy caab bi na kilifa gu mag boo xoon at taqwa mu ne miftaaxu jami il mataali bi dunya wa uxrawiya donc kon caabi mboolee mi sàkkutee fii mooy ragal yàlla buñ ko ragaloon dëgg waxuma sax feebar yi na wàññeeku Sénégal ñàkk am doom dina commencé wàññeeku Sénégal ndax penc mu nit yi ragal yàlla ragal yàlla bu wér àndandoo di jaamu yàlla jafe-jafe yu bëri du fa amati. waaw am na sax mag mu waxoon ne dëkk bu ñu ragal yàlla dëgg dëkk gaynde dina romb dina romb bëy te du ko fàdd saafoon saafoonteeg moom fóon ko pare dem yoonam ndax dafay suur ndax xaal bu nekk jotaay boobu moo ko yoon yoonal donc kon ñun suñu défi aujourd'hui défi ragal yàlla la défi delluwaat ci yàlla xam ne suñu tegoo ci yàlla yoon ñu tracé la lépp lu ñu bëgg ci àdduna ak àllaaxira dañ koy am incha allah donc lii moom incha allah faafa na sa xel daal nañu génn fi ñu war a dem yëpp képp ku ñu war a toogal lañ toog ak moom incha allah leneen rek jàpp ñun ne euh, peut-être du suñu doxin mooy gëmuñu euh, euh, parrainage bi waa dëkk bi tënk ndax dëkk bi léegi dafa commencé dangereux da ngay am xalaat ci wàllu politique nga xalaat xalaat bi nga xam ne naka ngay dimbalee sa sa pénc wala sa réew. ñu la nga war dem seeti kilifa diw kilifa diw bu la ñaanlul sa affaire du baax wala foog nga dem toog sukk ci kilifa diw soo toogee ci kilifa diw sukk mbooloo gi ne ci ginnaaw dañu ñëw ànd ak yow ñun tricher ñu nekk ci tricher yooyu ci kenn. ñu ne la sànq dañoo jébbal suñu bopp Allah subhanahu wa taala ba pare ñu sukkuñ ci kanamu kenn jéemu ñu naxante kenn jéemuñu raay tamit ay mbooloo ay kuréel wax dëgg yàlla taxuñoo jukk ku ñëw alhamdulilah ku ñëw tam alhamdulilah su kenn kese ñëwee wallahi azim suñu mission accomplir nañ ko. Euh, uttu ju mbooloo wax dëgg yàlla donc kon dem bi dem pour ragg derul islam la ndax dafa am ay saay-saay yu toog ay ati at di yàq derul islam ba julti ragal l'islam il faut ñu dellu si ñooñ nag wax leen l'islam duñu leen di wax charia war daf mën a nekk charia moo gën a wóor te moo gën a am euh, maandu loi yi ñuy doxal loolu ñàkk xam charia moo tax jullit rek la charia xam nga gis naa sax ñun def nañu enquête li muy wax ni ay 2014 wala 2015 la dans le cadre de euh, benn cabinet bu ma nekkoon liggéey ñuy xool enquête de perception sur la charia au Sénégal li may yéem ci enquête boobu mooy presque plus de 80 pour cent ñu ñu interrogé ay jullit lañ de neen charia wóorul loolu am Sénégal ay jullit la ñoo ne charia baaxul te gënul charia c'est dépassé. ay ñuy wax jullit ñi nga xam ñu ngi si jumaay di wax ashhadu an laa ilaaha illallaah ñoo taxaw ne peine de mort warul am Sénégal peine parce que peine de mort c'est barbare dañoo war a tëj gaa yi kaso donc kon am na liggéey bu rëy bi nga xam ne kon war na fi am Sénégal kon ñuy woowee kilifa diine yi anañu bu ñu defoon seen wareef dëgg taxaw fi yoroon taxaw jàngal nit yi diine. Hmm. kon ñun problème bi tey duñ ko am. kon nag ñoom defuñu seen wareef ñun da leen war a remplacer incha allah pour jàngal nit yi lan mooy charia ba pare woo leen si ñu jéem a taxaw charia Sénégal incha allah donc lii moom incha allah duñ ci tàyyi te duñ ci sonn duñ ci naxante duñ ci tappale euh, duñ ci duñ ci korompraate euh, te bañ tam kuñ ci mere. Mm-hmm. yaa ñu dimbali dèjà bañ ñu ku ñu mere nañu ñu si dëgg rek euh, dëgg bu taxawee. ku la mënti mere alhamdulilah waaye nañ saxaw nañ sax di wax dëgg te di ko dund yàlla ñu yàlla saxal ci dëgg bi ñuy wax yàlla tam buñ ci gis suñu bopp fi lañ ciy nekk buñ demee ba gis suñu ay bakkan yàlla ñu yàlla faat jërëñu xam ni kon ñu commencé yàq combat bi donc euh, lii daal mooy réponse bi xam moon naa ko andi par rapport ak laaj boobu macha allah. Eh salaamaaleykum wa rahmatulah. waaleykum salaam ñu ngi lay nuyu. di wane suñu mbégte. wane tamit mbégte daara ji ci euh, daanaka mënuñ leen teqali daal ndaxte boo ñëwee sa kër ñu lay gërëm te yow nga bokk ci kër gi day jafe fu nga jël ay kàddu di jëmale mhm. kon li ñuy wax rek moom mooy ñëw nga sa kër kontaan nañ mhm. euh, li nga xam ne la imaam dem dem muy idéologie du lu ñu mën a jàpp muy dem day mel ne ngelaw buy dox rek la gaz buy dox mënoo ko def pour enceinte bu koy téye moo amul l'islam day mel ni noonu la dal mm-hmm. xam naa ma bañ a guddal mm-hmm. euh, pour euh, euh, xam naa si ñaari ba ñetti question lay jëm mm-hmm. ci dama dem laaj ndaxte ñun dañoo judd boo xam naa <laughs> jëmm ji moo mel ni rek mais <laughs> mais yàgguñ ci àdduna bi suñ 40 ans motagul sax quoi euh, waaye bañ ñu judd ñu gis man damay toog ma ne waaw man lii ñu tënkal nga xam ne bu ñu demee sax takk jàpp ma ca police wala jàpp ma jënam dañ leneen yoon ba jur ba dama àtte sax dama ne dafa ne au oh, nom du peuple la wax kon mu mel ni kon peuple bi am nem dëppoo teg ay loi te waa peuple boo leen sax ñu lool waa ñu ne noonu ñun xamuñ de police bi moom ca kàddu yooyu la la jàppee mm-hmm. loi yooyu nga ne ma ma laajtee sax ba def ay may gëstu ñu ne maa fam kenn ku fi jaaroon ke ba may moo fi toog bind ak yëpp ma moom ba muy bind ndax gëstu woon na ca ñëpp lu ñu dëppoo mhm. ba di ci tëkka ñi ñoo jëpp dëppoo lii kuñ fi jàpp ne nii lañ koy defaree mm-hmm. léegi na est ce loolu ndax boobu commencé wul gis say yenn vidéo ñu koy développé mm-hmm. ba ci suñu droit boobu filmé romb sax ñu ne taxawal mm-hmm. balaa nga may taxawal day fekk est man man ah, kon léegi judd naa fi yaroo fi màggee fi yàlla def na mosuma génn fii Sénégal liñ fi xam yëpp fi lañ ko xamee mais ci réew sama réew au moins am naa droit wala génération bu nekk loolu laaj wàcce bi mooy loolu mm-hmm. ndax duñu wax ne réseau république ba policier bi di am sañ-sañ ne taxawal mm-hmm. ci kàddu askan bi laa fi taxee lan la taxawale leen nii mm-hmm. ndax askan boobu noonu ndax génération yi judd dañu war di beesalaat loolu wala chaque fois dañu war a waxal maanaam borom xam-xam dañu wax ne seen réew bu nga judd ñëw loi yi ni nañ ko tënkee ñi ñu ko tënkoon ci ne waa wala génération bi demee ba soppi bu njëkk ba gëlëm nañ jëm jëm léegi am nañ oto lekk léegi nu muy beesalee noonu ndax loi yi moom war ta mun a méngoog di ànd laajte bu njëkk mooy boobu ñaareel bi moom mooy euh, daf may jaaxal tey bu ñu waxee critère dañuy jàpp jàpp euh, njiit bu ñuy jiite. parce que tey bu ñu waxee jiite yàlla daf ñu bind nekk ay qabaayil ay xeet bëri. Mmh. lu mu wax sax mu ne jubluwaay bi li taarafu ngir que les critères boobu bu ñu bëggoon samp ah, ngi jiite de musulman nga wala chrétien nga comme ni ñu def pourcentage yi. Mmh, mmh. wax ne yaay quatre dix huit kii mooy quatre-vingt kii kii mooy quatre yow mu quatre-vingt-quinze indee ñu ne ah yow ñooy def ñooñu. waaw dama ne léegi bu defoon règle bi ci man pël Mm-hmm. mu nekk ci ay wan joolaa ba léegi mm-hmm. léegi si ban critère dañuy def def parce que joolaa ba am na économie am na nu mu wa jëree ay doom mm-hmm. am na culture am na yëpp am na nu ñuy jënd ak njaayee boo dem foo dem am na jaax laajte la bu may laaj waa Sénégal laaj ko venpdi xool ñu xool maanaam te ñun nanguñ ko foofu pël chrétien ñëw na jiite ñu ñu ne loolu amul problème ñu nangul ko concert bi ak lu mu indaale lépp ci ay diina yëpp yëpp léegi ndax mi nga moom noonu euh, débat boobu war na posé waat ba léegi ay julli sax si boppam di ko posé ndax ñu ñun laïcité leen lool la wala nit ki di fëkk boppam man républicain la di askano ay askano askan bu nga xam ne moom xamul sax ci ñooñu ci lan nañu wootee pourcentage buy voté damay gis chaque fois dañ ko ñu ne participation ñu nekk 17 millions Mm-hmm. tey ñu ne ñu par exemple un million ñoo dem si vote mm-hmm. léegi seize millions yi fu ñu jëm mm-hmm. ndax dafa bokk ci kuréel bu nga xam ne ñoom méngoowuñ ak seen loi bay dox man loolu problématique yi laa bëggoon euh, ñu kii laa bëggoon laajte euh, ndax léegi parti bi moom dafay jëkk pour def approche bi ma gis yeneen réew ci yu ma jàngoon Algérie Euh, ak euh, gis nañ fiis mhm. ñu def ay maanaam approche bi toog mhm. est-ce que ñun duñ nekk ci kii notel bi ñu génn ba sàpp dem ba dem ba yoddi réew ba mhm. yeneen puissance ñëw faagaagal leen ñu jaxase leen ay askan tasaat affaire bi ñu demaat am point de départ gis nañ ko à nax da muy jóg ci Tunisie gis nañ ko ci yeneen réew yu bëri ne léegi ndax approche boobu ak contexte Sénégal nan la seen parti nar a doxee ci loolu macha allah macha allah lii ay ay question professeur la ay question professeur la boo tax question professeur dafay saf sàpp euh, su ma juumul euh, fi nga tàmbalee mooy loi yi la moo tax ñu statique pourtant ñoom seen droit bi ñu wax la droit positif droit la bi nga xam ne dañoo ne dafa droit la bu évolutif maanaam jamono bu ne ak euh, contexte social bi moo war a moo war a moo war a moo war a présider Euh, euh, loi ak normes yu war a jël maanaam les normes juridiques sax en principe doivent émaner des normes sociales donc société bi lu muy dund gëm ko loolu ñu war a attee Sénégal nag lii jafe-jafe la ci te jafe-jafe gii tudd naa ko ba passé ba ñuy def suñu conférence de presse man leen jiitu na suñu indépendance dafa am benn euh, waaye ju ñuy wax Paul Marty bi nga xam ne géré woon na le bureau des affaires musulmans fii ci AOF en à Saint-Louis kooku ba muy ñëw fii Sénégal dañ ko sas mu gëstul France islam naka la demee ci Afrique de l'Ouest étude islam yëpp moom moo ko def il a fait une étude de l'islam au Sénégal en 1917 islam ba Côte d'Ivoire en 1925 histoire islam au Mali islam au Soudan islam en Guinée islam chez les Murtaza de 1916 à 1925 gëstu na islam ci dëkk yëpp ba pare jël rapport yi jox ko France France xool ne islam kon mooy problème bi fii islam warul jiite euh, seen inspecteur académique sax yoroon enseignement yi fii sax ñoom Georges Ardèche ñoom ñëpp dañ ci bind wax nañ ci lu leer ñoom ne islam waruñu seetaan ba muy jéem a doxal euh, dëkk yuñ ci ñuul yi la preuve jamono boobu. le bureau des affaires musulmanes bu nekkoon Saint-Louis dafa doon censurer lépp luy livre yuy wax ci wàllu islamu siyaasiya dañ ko doon censurer amuloon droit dugg Sénégal ñu naan téere yu xonk yi maanaam téere yu ñu wax yëpp mooy faslul awal ak tahaara ak salaa yii moo dugg si ci dëkk bi maanaam naka la jàppee la mooy la mooy la mooy al al xuslu al al wudoo yii daal la gaa yoon bind téere di ko dugal pare tubaab bi bàyyi ko mu dugg mais lépp luy wax ci pensée politique te dafa yàgg ci islam tubaab bi nangu dugg Sénégal donc loolu bu mu commencé dugg Sénégal yàggul donc moo tax gars yi jàpp sax dafa am benn fracture entre ñi fi nekkoon bu yàgg-yàgg ba ak jamono bi ñu bees yu fi nekk ndax am na fikk la yu bees yi xam ne ñu yàgg-yàgg yi génn ñu Sénégal te amuñ ci woon accès donc aujourd'hui euh, liy wax ji mooy tubaab boobu nga xam ne dafa identifier islam comme un problème ba muy demit bàyyi na fi nit bi nga xam ne moo ko fi teewal muy le président Senghor gars ils ont travaillé à à à à noyer les initiatives musulmanes ba di dugal ci constitution ne parti warul sukkandiku ci jàngale yoon ci yàlla Muhammad mu ngi suñu constitution boolewaal si yoon ci yàlla Insa mais loolu wax boobu waxi tappale kese la parce que xam nga ni lii minorité la tàndulul jéem a diriger ñi bëgg diriger dañu bëggoon xañ ñu diriger ñu kon parti warul sukkandiku ci ethnie ci race ci religion pour mën a defar Sénégal mm. lii boo ko xoolee 1960 ba tey mën nga ko ngàntal ne état bu bees la état indépendant bu bees tàq la bi nga xam ne pour préserver ko du chaos wala ñu mën a toog benn temps bi nga ne bu kenn wax waxu pour ñu construire l'unité nationale c'était compréhensible mais jusqu'à présent c'est incompréhensible encore que dama si interpeller suñu intellectuels yi nga xam ne suñu suñu saay-saay yi dara ma ne ñun problème bi gën a ngand mooy suñu intellectuel wala boog suñu ay diplômé ndax diplômé ak intellectuel duñu benn Imam Ndaw intellectuel la woon ak ñu mel ni moom nga gis ñoom Mouhidine Samba Diallo yàlla na ko yàlla yokk leer intellectuel la woon intellectuel dafa dafa dafa neex a déglu mais nous avons des diplômés yoo xam ne dañuy nax askan wi ñoom dañoo wax ni parti islamique baaxul ci dëkk loolu la wax fi Sénégal dañuy jàng tubaab ba pare lay làqal tubaab yu neex nag vous savez nangam ak nangam ak nangam waaye ñoom fi ñu jàngee ñoom ci dëkk tubaab yi muy France mun naa joxe exemple France xam ne mooy seen bàjjen ñoom France am na parti islamique li muy bañ l'islam yëpp di ko xeex France y a UDMF mu ngi France c'est l'union des démocrates musulmans français jullit moo ñoom parti bi ñoom nañ islam la ñuy xeexal dem nañ élection européenne ba am ay am ay député France am na ay parti démocrate chrétien des partis chrétiens yoo xam ne ñoom jàngale instant la ñu war a defaree dëkk bi boo demee dans toute l'Europe Suisse Allemagne Angleterre euh, Norvège Suède euh, Irlande dans tous les pays di gis ay parti démocrate chrétien ñoo gëm ñoom christianisme dafa war a defar dëkk bi waaye ñun la moo tax Sénégal ñun ñu bëgg ñu gëmloo ñun kon yéen nekk modèle ci wàllu defar dëkk bi fii soo nee islamiste sax gaañ lay mere da lay waxaat ay bët boo nee socialiste na kenn du la mere socialisme mooy ku gëm la doctrine du socialisme dañoo jàpp c'est normal dañu koy sax bàkkoo ne je suis socialiste socialiste yaa ngi fii mooy taalibe Abdou Diouf yi da ngay gis ku taxaw ne la man libéral la maanaam pensée libéralisme laa Ibrahima bi xam ne cosaanam chaque fois ma fàttali ko cosaanam dëgg-dëgg ci gars yi ay la ay athée ñoo créé libéralisme maanaam c'est la c'est la maçonnerie internationale moo créé libéralisme dañoo war a doomu aadama ci bépp gëm-gëm ak ci bépp tradition ndax lu dafay tàddal nit donc kon jur sax est-ce que mën na sax taxaw ne man je suis libéral waaye même lii posé le problème waa Sénégal Sénégal ku taxaw ne man je suis marxiste maanaam Karl Marx laay topp ci xalaat dañu naan kii il est instruit kii la. man xam naa prof yu bëri université xam ne ni taxaw carrément ne je ku taxaw woo te trotskiste mooy ku gëm xalaatu Trotsky Trotsky benn russe loon bi xam ne mandi la ko ñëpp xamee woon nan naan vodka mandi mooy mooy taarixam wax dëgg yàlla. pourtant ay Sénégal fii ay nit ñu koy revendiquer ay jamono sax président Macky Sall revendiqué wu ne moom trotskiste la ñoom Trotsky dafa idéem ak xalaatam ci politique moo ko gën a neex ba tax moom gauche sa njëkk dugg balaa muy dem si waa PDS. waaw léegi la moo tax ku taxaw ne man islamiste la maanaam man pensé wu islam laa gëm ñi lay joxoñ la teg baaraam dëkkal la fu bon di la ŋàññ di la wax lu rafet lu ñaaw donc lii complexe bi xam ne dañ ko defar depuis bu yàgg te ñun ñoo ko war a jéem a dindi ndax il est temps aujourd'hui de de déconstruire euh, ces mensonges là ces ces complexes yi xam ne dañ ko jox julti ba julti ñemew ñu woote ni islam laa gëm amul lenn lu war a gën a neex julit mu woote ni man islam laa gëm amul a a fier loo bu taxaw ne man yonent Yàlla Muhammad mooy sama kilifa donc lii wax dëgg yàlla man gisuma lu si war a néew su ma jëlee par li may njëkk wax mooy je suis a xoolante la mooy ma ci islam te léeg-léeg ma am ci ay ma mais sincèrement je bi la pour ñoom religion bi religion toroxal nit la rey ay nit dagg ay bopp dagg ay loxo mu leen non yéen dafa mel ni ñi gëm ci Afrique ay néegu ñax a fa am ak si kaw garab lañ dëkk yéen ñoo yéen a bokk xalaat da leen war si ay télé nax leen rek et dañuy intéressé wu des fois am na si may topp di ma laaj mais seen diire bi nangam ak nangam am naa si kenn ki am sa tuub na ndax loolu te professeur la pour diir que ñàkk xam léeg-léeg tax na nit di ŋàññool di daw dara il faut ñu assumer li ñu am ak li ñu doon pour mën ci woo doomu aadama yi ba man jàpp naa ne wax dëgg yàlla euh, siècle bi moom complexe yi dafa war a wàcc euh, naxante bi dafa war a jeex il faut ñu waxante dëgg te yàlla rek tax euh, après avance ci dëgg ndax lépp dëgg tabaxul rek caaxaan nga sa la te yàlla moom alxaq yàlla mooy alxaq yàlla mooy dëgg donc lii moom wax dëgg yàlla jàpp naa ni mooy la base de li tax ñu nekk ci situation boobu par rapport a aux autres surtout par naka lañ koy waxee sax troisième question bi. troisième approche yu ñu am dëkku naar yi. Mhm. waaw euh, chaque fois damay wax ne on ne peut pas réinventer la roue maanaam jamono bu nekk rek nit ñi dañoo am devoir balaa ñuy yëkkati dara ñu xool lii weesu woon ak erreur yu ñu def ndax yaayu des erreurs doomu aadama fii ñëpp ñu fi nekk amul maasum maanaam yonente amu fi. ñëpp dañuy juum euh, njuumte yu weesu yi dañu war a njëkk jël di ko jéem a di ko jéem a corriger pour améliorer euh, wax ci man dama jàpp nag ni pensée yooyu yëpp c'est vrai que safoon na l'islam waaye du woon islam pur comme comme lu imam Ndaw tam wax islaam pur islam pur mënoo ko yëkkatee pare muy yàqu wala muy daanu islam bi suñ ko raxee rek wala leneen dugg ci wala naf su nekkoon ci wala. Euh, outin maanaam ay yeneen ambition cachée nekk ci ginnaaw lii mën naa di problème ci biir combat ñun dans notre cadre la chose est claire lenn la ñuy wax ñun dañoo wax ne gëmmuñu laa république fii au Sénégal ñu wax li ñu woowee république dañoo gëm seen création de la maçonnerie gëmmuñu laïcité bu ñu dugal suñu biir constitution bi d'ailleurs sax ñoo gëmul sax constitution bi man laa gëmul ndax constitution bi ñu koy bind tàgguwuñu ma bokk ma si ñu laaj xalaat pour ñu bindandoo ko donc euh, charte bi man ça ma ça ma ça m'interpelle pas ndax dëkk yëpp seen constitution dañoo toog waxtaan doo ko ñëpp gis seen bopp. Islande fële am na révolution ñu woowee révolution casserole dëkk bi yëpp dañoo génn pour bind seen loi yi ñoom ñoom dañoo commencé seen gis seen dëkk bi ils pas à dans leur pays kenn ku nekk jox xalaatam ñu ubbi ay ay page Facebook ubbi ay groupe téléphone ubbi ay média euh, ubbi ay siège ñëpp ku nekk taxaw ne man loi bi war nañu dugal nangam ñu boole xalaatu dëkk bi yëpp tënk ko def synthèse génne waa dëkk bi lañ soxla. loolu pourtant assise nationale ba amoon fii Sénégal xawoon na liggéey lu mel noonu waaye dafa des ndax assise bi saful l'islam nitul diine yi dëgg woowu ñu leen ci woon affaire de politico politicienne la woon jàpp naa ne aujourd'hui il faut ñu waxtaanee li ñu bokk kenn ku nekk mën a joxe xalaatam ak sañ-sañam li nga ne moom su ko suñ ko defee def siy gaañu ak li nga xam ne mën na koo muñ ñi boole yëpp tënk leen li nga xam ne ñëpp ça va nous rassembler et baa kenn du mer suñuy appliquer loi yi da ngay gis loi yi kat man bokk naa si je suis mais man loi yi nekk fii si dëkk bi kan moo daganal ne ñiy jaay seen bopp ñoo war a am carte kan moo ko man du man man loolu daganal ma ko te bugguma ko ñaanuma yàlla sama doom di jaay boppam mais fii ay jigéen ñu ngi fii Sénégal di jaay seen bopp jox leen ay carte te loolu surtout ñun ñëpp leen joxee carte yooyu ñun ñëpp ñoo d'accord ne Sénégal soxla na ay jigéen jaay seen bopp moo tax loolu am Sénégal kan moo kan mooy yoonal ne état Sénégal dafa war a am entreprise bi nga xam ne jeu de hasard lay liggéey tudd LONASE kan moo ko d' man d' accord ma ko peut être alxuraan daf ma jàngal ne ma jeu de hasard dafa aram yàlla mi naa yasalunaka anil xamri wal maysiri dafa ne qul fihima ism kabir lu tax man ñu ubbi entreprise bi nga xam ne jeu de hasard la ci sama tur di ci liggéey di yàq sama ay xale si ay fasak ay ay ay marché xaw ma lu ne. xaalis boobu ñu koy dugal ci budget Sénégal ba ma ciy amaale ñu ñëpp ñu siy am mais dañ tooñ man ndax li ñuy dugal ci budget Sénégal riba la kan moo jox droit état Sénégal mu dem leb sama tur ak ay intérêt yu ngand te loolu riba la pour mën a investir ay projet bi dëkk donc dafa am lu bëri li nga xam ne ñun bàyyiwuñu xel suñu ay pas-pas ak suñuy ngëm-ngëm ci li ñuy doxalee Sénégal te loolu jàpp naa ni base tabax dëkk mu ngi tàmbali ci waxtaan ni lu ñëpp bokk ñu koy waxtaanee islam nag mësul ñàq am problème ak waxtaanee ku gëmul islaam sax dafa am droit ci dëkk bi ñu tabax l'essentiel bu ñu lorante man dafa am principe ñu xam ñun ci finance islamique day wax naan laa darara wala diraara bu bul loree te bul loru il faut ñu tëgg li nga xam ne du ñu loru du ñu loraate te loolu ñu ma chrétiens yi mën ko def Sénégal incha allah mu nañ tabax li nga xam ne du ñu lor chrétiens yi ak ñoom tamit du ñu lor ñu mën a dund suñu diine correctement état bi dox ni mu ni mu ñu ni mu ñu arrangé euh, ñu sàmm suñu diine sàmm suñu ngor ba pare gis suñu bopp ci réew mi di wax dëgg yàlla man jàpp ma ne lu jafe la et gouvernance kese la problème de gouvernance kese la on veut que l'islam gouverne et philosophie islam encore une fois chaque fois ma fàttali nit yi ne benn diine fi nekk depuis Adama ba yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy islam. ay saay-saay ñoo créé ay tur jéem a teqali naan i christianisme ak judaïsme baatu judaïsme sax man dafa mën jàpp réew bu yàgg ba. ndax judaïsme doctrine juda la ñi xam dëgg-dëgg ci wàllu société secret xam nañ lu tax gaa yi tuddee ko juda suñ ko doon tuddee yonent bi ko wàccee wala ñu ko tuddee judaïsme ndax yonent wàccee Moussa la tudd lu tax tuddee ñu ko moïsisme wala tuddee ko sax je ne sais pas tuddee ko tora toraïsme nga xam ne dafa am rapport ak li Moussa andi donc lii ay création humaine la. yàlla islam originel la jàngalee aadama ba yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi xam ne idéologie boobu philosophie bi changé wul charia yi changé na waaye gëm-gëm bi benn la ci wéetal yàlla ci kennal yàlla ci bañ a saxal tooñ ak ci créer mandu ak njub ci pénc bi mais lii do mboolem diine ñoo ko bokk loolu bu ñu ko taxee Sénégal chrétien ñoo war a kontaan man de sama baat ci kaw laa wax de bés na ma ne buñ ma teg tegloon un parti chrétien Sénégal son parti chrétien bu dee parti chrétien la muy dem élection ak benn parti bi xam ne ne socialist la wala libéral la te xam ne aw ma choix man foog ma voté parti chrétien bi laay voté ndax bu dee fikra yoon ci yàlla bëgg sukkandikoo ñoom man ci yàlla instant dama ko revendiquer dama retrouver wu ci moom ndax sama yonent la man dama ko gëm dama ko dama koy topp euh, jaamu ma ko nag foofu rek laa uteeg ñeent si ñoom man jaamu ma yoon ci yàlla instant du sama yàlla te gëw ma ni doomu yàlla la waaye yonent yàlla bi xam ne dafa jëlee ci yàlla message bu leer. bi nga xam ne dafa ñëw pour dimbali doomu aadama yi pour sauver doomu aadama yi message boobu waroowul ak message yoon wax la làkk yi ñu ko wax mu wutee rek mais même wax yi la donc Isa alayhi salaam li mu wax moom la Moussa alayhi salaam wax moom la Dawda alayhi salaam wax moom la Souleymane ba aadama ñoom ñëpp moom wax mooy nañ delloo àdduna bi ki ko moom te kenn ko moom mooy allah subhanahu wa taala donc li wax dëgg yàlla jàpp naa ni lu lu yomba def la lu yomb tënk la surtout ci dimension économie dimension judiciaire dimension euh, politique sociale li jàpp naa ni ñetti pàcc yi euh, islam ni mu ko réglé bu ñu ko defoon Sénégal incha allah waxuma du amati jafe-jafe waaye dina wàññeeku dina wàññeeku lool su amoon cent pauvres ci régime yu nekk islam bu doxoon penc bi pauvres ñu mat dix man gëm naa ni islam. bu defaree pénc bi nañ toog sax di ut lu ñuy joxe zakat di ko génnee Sénégal di ko jox yeneen dëkk yi xam ne ñoo jege pour may leen ko bu dee dawal nañ li yàlla tëral dëgg-dëgg si téere bi. loolu wax dëgg yàlla jombuñu am nañ ay borom xam yu ko mate ndongo daara yaa ngi fi euh, alim yaa ngi fi docteur yaa ngi fi. loolu wax dëgg yàlla yomb naa def donc euh, macha allah. Euh, jërëjëf si ci ci fàttali gi ndax plan boobu plan bi nga xam ne dafa war nekk base de travail sax ci li ñu bëgg def ci Sénégal. Euh, am na ci lenn lu ma xamoon ci plan boobu. Mm. donc ñun ñu ngi travailler si si aspect yooyu ci wàllu secteur primaire naka lañ koy bu ba mu mën a soutenir la transformation de l' mais incha allah plan boobu lañ ci gën a taxaw euh, dañ ko xool xool dañ ko intégrer ndax man gëm naa ni lépp lu war a defar penc mi jamono bu ne ñi ko war a defar feeñ ba pare si pencoom ñëpp liggéey mu ngi fa pare dajale doole bi kese mooy problème bi dajale ko. jëmmal ko waaye lépp ngi fi a pare et comme li wax sànq rek il faut pas réinventer la roue maanaam roue bi créé ko pare ñu ñëw ñu pour créé waat ko dañ ñëw jël assemblée puzzle yi pièces yi benn par benn boole ko pour mën a am résultat daar daar et loolu liggéey yu mel ni liggéey imam Alioune Badara Ndao ci wàllu googu lay amee solo incha allah et loolu incha allah euh, ak waa ak waa RV ñu dañ ci taxaw ñoom saaliw ñu ngi si euh, liggéey boobu lañ ci dugg bu baax a baax balaa ñuy commencé tourner euh, dinañ si ñëwaat dañ ko gën a tas pour leeral ko ndax man gëm naa ni la meilleure manière bu ñu mën a delloo njukkal boroom xam-xam mooy li mu doon xel li ci xam-xam mm-hmm. ñu koy partagé li si xaw a ñu gën ko leeral liñ ci war a euh, améliorer ñu améliorer ko ndax nit ko nekk tamit liggéeyam il ne pas parfait. Mm-hmm. da koy liggéey ci benn jamono. jamono boobu après dafay ñëw am yeneen jumtukaay yu bees yu ci war a dolli waa jamono boobu ñoo ko war a dolli pour gën a pour gën a leeral liggéey boobu loolu ñu ne en économie loolu ñuy wax benn marche de l'économie sooy xool actuellement damay euh, joxe courant bu ndaw mel ni keynésianisme euh, bi nga xam ne Keynes moo ko moo ko lancé woon am na des néo-keynésiens am na des post-keynésiens maanaam courant mu ngi dox ba tey courant ba tey ñu ngi koy améliorer parce que am na ay yu waxoon te jamono bii Keynes fekkee ah, jamono bii Keynes fi par rapport ak li mu waxoon ci mbir nangam. Mhm. kon dina wax nangam ak nangam si tel mbir. loolu la ñuy wax avancée de la science et la connaissance loolu moo ko andi mhm. loolu incha allah nañ ci liggéey bi iznillahi wa quwwatihi jërëjëf si nasiha bi euh, professeur ñu ngi lay nuyu di di rafetlu taxawaay bi lool surtout moment bi nga xam ne suñu imaam tëdd na taxawaay boobu moom ñu ngi koy rafetlu lool lool lool macha allah di la ci ñaanal yàlla yàlla fay la barkeel taxawaay ñu ngi ñu ngi sant yàlla aussi di wax ne euh, en tout cas euh, partie bi nga taxawal ñun dañu ko considéré comme aubaine mm-hmm. parce que dañu daan toog suñu ruq di wax ne ñun bu ñu dee ci lii la ñuy lan la ñuy wax suñu borom. ndaxte ñeneen ñi fi taxawal lépp ay nit ak seeni nopp ñoo ko taxawal donc jullit dafa war a mun a taxawal li nga xam ne moom la gëm mu dund ko donc ñu ngi sant suñu borom euh, di la ci sant di la ci ñaanal yàlla bi nga xamee ne taxawal nga lu mel nii parti boo xam ne sook la mooy euh, chariaton islamique loolu ñu ngi la ci ñu ngi la ciy jaajëfal bu bëree lu lu bëree bëri euh, di wax na tamit di ñaan suñu borom RV mooy rassemblement pour la vérité mais mu dem ba nekk rendez-vous bi nga xam ne peuple sénégalais yi peuple le peuple sénégalais dina dem taseeg boromam jébbalul ko nangul ko yàlla may ñu xéewal yi nekk lépp ci jébbalul sa borom nangul ko asalaamaaleykum wa rahmatulah. ci nuyoo googu nag Cheikh Oumar eh, Diagne professeur ak délégation bi nga xamante ne moom la àndal te di leen ñaanal jéego yi nga xamante ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ko yàlla digg na ko ki nga xamante ne jóg na bérébam am yoon a dig lu dul dem ziyaare ay mbokki julitam li leen yàlla dig ci loolu yàlla yàlla na ko yàlla defal ba fulal nit na leen leen ko sax fi ma njëkkoon a tàmbale ci ngërmaandi mi mooy li soxna si wax rek taxawaay bi nga xamante ne vraiment e, gisoon nañ ngeen amoon ko bu baax ci booba imaam nelawagul sax mm-hmm. e, ngeen amoon ko ci hôpital ba ak ba mu nelawee ñëw ci hôpital ba ànd koog ñun ba fii nii ba ñu denc ko ngeen dellu nag nattu bi daal di leen dab ci loolu kon loolu ñu ngi leen di ñaanal li ma lay foore professeur mooy man li ma jàpp yow sa borom xam na la des na nag mu xamle la sa borom xam na la ba pare moom mais des na nag mu xamle la pour mu xamle la nag ci nattu la lay xamlee il faut mu nattu la ngir seen àdduna bi xam la loolu nag jàpp naa ne maa ngi koy wax mais yaa ma ko gën a xam te yaa ngi koy waajal ndax bari na nit ki wax ne di yëkkati kàddoom di doo fugg dënnam di wax maa ngi nii bés bu natt wàcce ci moom mu deltuwaat ba nit ñi naa est la moo tax suñu borom di wax ne wax naa la ko keroog ba nga génnee ba ma envoyé la audio mhm. ne la suñu borom dafa wax ne alif laam miim mhm. a xasiba naasu an yutraku an yaqulu amanna amanna wa hum laa yuftanuun mhm. lan la ci teg mu ne walaqad fatanna alladina min qabl fala ya'lamanna allahu alladina sadaqu wala ya'lamanna alkaadibin kon léegi dafa des yàlla xamle la mhm. moom xam na la ba pare mhm. mais mu des na ndax xam ne lii ngay wax mhm. di ko woo nit ñi di ko wax ci plateau yi di ko wax fu ne ndax déggu na ci yow wala déggu ci yow yal nañ ci yàlla may réussir eh, loolu benn la beneen bi mooy jamono gii ñu toll nii képp koo xamante ne rek yaa ngi wax ci dëgg eh, dañ la war a ñaanal dañ la war a ñaanal liñ la war a njëkk ñaanal nag mooy nga am ngëm bu ànd ak jëfe ndax loolu dong moo la mën a may nga mën a réussir ci li nga xamante ne moom ngay moom ngay woote ndax am na yenn yenn yenn yenn xalaat yenn doxali ni da koy waajal ci jëf ju baax jëf ju sel ndax jëf ju sell googu ak jëf ju baax mooy tax ëllëg bu yooyu newee day fekkee pas-pasam attan na ko moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu doon wax ne baadiru bil amali saaliha baadiru di amali saaliha mu ne fitanun ka xita i leylil muslima mu ne gaaw leen ngeen di jëf jëf ju sell jëf ju baax mu ne ndax fitinaa ngi ñëw fitina yi day daal di toggale toggoo comme ni lëndëm gudd bi di toggoo ni mu ne yusbihu rajulu muminan wa yumsi kaafira mu ne nit dana xëy doon jullit avant ngoon mu doon yéeféer mu ne nit dana gont doon jullit avant bër bërset mu doon yéeféer mu ne ñan lan moo ko waral mu ne yabiu diinahu bi aradin min ad-dunya day jaay diineem ngir poñetu mu àdduna tey nag dangay gis nit day woo nit ñi kaay leen ngi nii wala kaay leen ngi nii ba mbooloo mi ñëw wuy si leen mu jaay mbooloo mi ci ci poñetum àdduna waxuma mu jaay boppam de mais jaay na bopp ba muy woote nit ñi rek la la xam ne moom fa mu jëm mais nag des na nag mu woo nit ñi ba nit ñi woo ndax njaay gi mu leen bëgg a jaay koom-koom bi gën a yokk tey bari na tey dem na ba ñenn ñi nga xamante ne sax déggu nañ si seen doxali tey bëggatuñu bu nit bu wootee amatuñu fit pour dem wuy ko ndax jàpp na la fi jiitu rek moo fi moo fi nekk mooy nit ku woote rek ndax gis nañ ne hmm. dañoo am état yoo xamante ne boo dajalee fukki ni ñaar fukki ni rek hmm. fekkoon yow kenn yaay wax danaa kii moom kenn la hmm. mais comme dajale na ñaar fukki nit ñeent fukki nit kii tey bu ñëwee bu buñ koy jënd jëndin bu seer lañ koy jëndee loolu tey kon su ko defee loolu ñu ngi lay ñaanal eh, xamle googu la sa borom bëgg a xamlee ci askanu Sénégal ba ci at bi ñu jàppale ci ñaari yoon di la tëj ci kaso di la buntu kara di la xañ xañ say àq loolu yëpp ci nattu yi la eh, beneen bi mooy ki nga xamante ne tey moo sabab pour nga ñëw ziare ji mooy cheikh na cheikh imam alim ndaw rahmatullah alayhi yal na yàlla yërëm ko eh, man ba ma déggee nga wax ne da nga créé da ngeen di créé parti islamique ma ne alhamdulilah rabbi ndax lu tax mm-hmm. imaam da nga ko doon seedi ci biir kaso bi nga ne nga mer nga ànd sa xadar nga ne ko imaam tee nga ñaanal ñi ñu alku mën mm-hmm. la dee tee ngaa tee ba ñaan Sénégal rek ba mu delluwaat ci charia mm-hmm. kon amaana ñaan googu mu doon ñaan tey dama naan boo wootee woon parti islamique. Mm-hmm. ñu dem saa ñu bañal la ko. Mm-hmm. nga dem askan bi bañal la ko réussir am na. Mm-hmm. ndax dund nañ ay santeenu at dégguñu kilifa buñ ne kilifa diine la bu ñemee wax ne parti islamique. bal sax waxuma la parti islamique mais toog ne saa ne dañoo war a atte wa sax dañ koo xaw a ragal. kon buñ demee ba gis. ab jàmbaar boo xamante ne jóg na ànd ak mbooloo ñu ne dañu bëgg a créer parti islamique. maa ne bu yemoon foofu rek réussir am na mm-hmm. ndax amaana kàddu googu mu yëkkati ëllëg mm-hmm. dina am ndaw ñu ko dégg mm-hmm. ñëw ñoom it créé an créé ko euh, ndax buntu la ngir fekk amul ku ko fugg rek ba tijji ko rek ñeneen du ñëw mais comme boo ko tijjee rek même boo ko tijjoo rek yem foofu rek du euh, am na ngelaw bu fay ñëw dugg comme buntu bi moom tijjeeku na boo ko bàyyi woon noonu rek ngelaw day ñëw dugg ci biir néeg bi mais buñ tëjee buntu yëpp kenn tijjiwu ko kenn tijjiwul fenêtre kenn tijjiwul néeg dara du fa dugg kon dafa mel ni da nga tijjil sénégalais yi ne ndekete ñu dañu war a am parti islamique imaam nag ci lii la doon woote imaam woote wutoon pour association imaam woote wutoon pour tarixa dama dem ci benn kilifa ci fee ci Touba ñuy waxtaan mu ne ma man de yéene bi ma doon bi ma am dama ko amee dama xelaat senegal yëpp ma gis ne bari na tey ñuy woote mais seen mbooloo mi dañ cee far ba mu ëpp wala moom la ñu mais gis na rek benn koo xamante ne moom bu yëkkatee rek moom islaam a tax mu wax mu ne muy imaam Alioune Ndao rahmatullahi mu ne ma ma ne ma njëkk ko woo ne ko lii laa xalaat mhm. ne ma rafet na mu ne ma bés ni ki tey mhm. ba su ma su ma su ma su ma jógee xalaat dara rek moom laay woo ne ko lii laa xalaat est-ce que lii mhm. kon imaam moom ci loolu la doon jóg loo da doon ñaan na fii ci minbar bii la doon wax ne mbir mi dafa war a dem ba pale nii la ko doon waxee fii ñu toog fii tey boo fi toogee cheikh cheikh professeur ngay wax charia mu toogoon fii kere ba mu génnee mu ne su ma deewoon tey ma sant yàlla ndax gis naa ay ndaw ci senegal ñoo xamante ne lii ma porté woon su ma génnee àdduna ñu continuer ko nga ñawaat toog fii ci barab bi tey nga naan charia alhamdulilahi rabbil alamin alhamdulilahi ñu ngi lay ñaanal bu baax ñu ngi lay ñaanal bu baax nga waajal nag am na ñoo xamante ne dax lii moom bi suñu borom sàncee àdduna ba tey ña ko sànce mooy aadama ak xawa ak iblis lii la leen waxoon mooy wàcc leen si kaw suuf ñenn si yéen dañuy doon noonu ñeneen ñi yonent yi fi jaar yëpp ci lii lañ doon woo yonent yàlla ibrahima ba mu njëkkee ba mu woote na inna buraa'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah génn naa ci yéen kon génn ci yéen génn ci ay nit doyul mënumaa wax ne man génn naa ci yow mais yow li nga fas ak li nga jëm ma ñëw ànd ko yow déedéet moo tax mu ne génn naa ci yéen wa mimma taabuduuna min duunillah ak lépp loo xamante ne yeneen ko doon jaamute du yàlla te munoo tabi weddi loo rek yem mu ne kafar naa bikum weddi naa leen nag léegi nag bu boobaa Cheikh si lan mooy tàmbale mu ne bada baynana wa baynakumul adawatu wal barda abadan fan lay terminé mu ne xatta tuminoo xatta tuminoo kon liñ lay nax ne la ah war nañu mun a ànd ñoo bokk penc mi déedéet fu ñu war a mun a àndee képp la rek boo jaaree ni ma jaaree ni pour ñu daje il faut ñu daje kaddu laa ilaha illallah moom moom li mu jàpp moom du ko waay du ko wocc bu da lay nax rek du ko wocc yow kay lay jéem a négocier pour nga wocc la nga yor nga jël fekk ci ko yàlla na lam la wax moom mooy hatta tu'minu billahi waxda ba yéen yëpp ngeen ànd ngeen gëm yàlla képp mooy yàlla moom men war a déglu mu digal leen ngeen def mu tere leen ngeen bàyyi kon ñun am nañ mbégte lool ci sa ci sa taxawaay mais gis na ne du yow kese nag mm-hmm. eh, ñu mel ni eh, Abdou Karim Gueye mm-hmm. taxawaayam mm-hmm. niñ ko gisee niñ ko gisee sa taxawaay mm-hmm. ci njabooti imaam mm-hmm. ak ci eh, askanu senegal noonu lañ gisee moom it Sénégal jaral ko mu joxe bakkanam ñu koy tëj mu ànd feebar eh, coono gu metti lay dunde ci biir kaso yi ak feebar ndax ku ne xam na ne feebar rek sa biir néeg nga tëdd rek say soxna di la dimbale say yaay say say say mbokk de dimbale de méttit la mais waxuma la nga dem tëdd fee ca kaso nga ànd ak feebar bi nga génne ba tey ñu gis la yow fi nga fi nga tegoon sa tànk yaa ngi fa kon nit ku déggoo ngoog nit ku dara jë delloo njukkal a ngoog salaamaaleykum wa rahmatullah wa barakaatu ñaan bi defal ñaan man moom na ñaan ñaanal wal mustaqbil istajab defal ñaan defal ñaan aus billahi min alsheytan irajim bismillahi arrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin arrahmani irrahim maliki yawmi ddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina sirata almustaqima sirata allazina an'amta alayhim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين الحمد لله allahuma ya man ida arada cheyan an yaqula lahu kun fa yakun allahuma ya badiu lsamawati wal ardi dal izzati wal jabarut ya xayu ya qayum ya man la taaxuduhu santum wala nawm ya man biyadihi malakutu kulli hujur wala hujurat anta allah la ilaha illa anta anta samadu alladi lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad allahuma ya jam'ana haja jam'an marhuba tafarruqana tafarruqan masuma wala tajal fina wala maana shaqiyan wala martuda بحق أسماء الحسنى وصفاته ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشئا ويقينا صادقا ويقينا صادقا ويقينا صادقا وتوبة نصوحة توبة قبل الموت وراحة عند الموت فوز بالجنة وفوز بالجنة وفوز بالجنة والنجاة من النار فوز بالجنة والنجاة من النار بحق أسماء الحسنى وصفاته الله allahuma salli wa sallim ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam subhanaka allahuma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin qul ma inda allahi khayrun min al-lahwi wa min at-tijarah